yi daal leen ak jàmm kenn ku ci nekk ñu ko bu baax wax ci turam ak santam baal leen ñu àq baal nañ leen àq yàlla nañu yàlla boole baal ñu teewe ko ay déwén yu bëree bëri bëri yàlla nangu ñaan yi nangu yi jaamu yàlla yi tamit lépp lu ñu ko ñaan rek mu nangul ñu ko en tout cas ah, xiir ñu bañ di def loo xamante ne nii du lu ko neex en tout cas Euh, yaakaar naa ne yéen ñëpp euh, war ngeen ci jàmm wari ngeen ci jàmm alhamdulilah ñi mu fekk nag ñu seen yaram sutante yàlla na yàlla fëgg seen bopp ba ñu ñëwaat itam ci ñun ànd ak ñun ku mu fekk itam ci fi nga xamante ni mooy hôpitaux yi wala mu fekk la ci ah, kaso yi tamit yàlla na la yàlla taxawu ba nga ñëwaat ci ñun incha allah en tout cas mbégte la ñu am ah, tey ji ginnaaw ba ñu wooree ba mu jeex euh, daal di julli ba noppi itam waxtu wi jot ñu fas yéenee Euh, def ak yéen euh, émission bu mucc ayib spécial korité laa koy tuddee ah euh, waaye dama ci ànd ak ndaanaan waaye laataa ma koy nuyu rek ngeen may ma mu nuyu bu baax a baax ñi ñuy seetaan di internautes yi nuyu bu baax a baax ñi jàpp ci émission bi waaye képp kuy kilifa diine wala kilifa aada nekk ci réew mi tamit ah maa ngi lay jox sa waaye di la nuyu ci nuyoo bi gën ci nuyoo di asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Bara Ndiaye moom tey mooy gan gi ñu fas yéene séq euh, waxtaan wu am solo ngeen xam ko bu baax a baax doonul ku may présenté te ci réew mi euh, di religieux waaye tamit di chroniqueur koo xam te ni day gëstu lool sax ngir mën a analyser tolluwaayu réew mi moo tax tey jii ci bësu julli gi bës bu sell bi ah ma dalal ko ngir ñu waxtaanee réew mi ak tolluwaay bi asalaamaaleykum Serigne Cheikh Bara Ndiaye. aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala eh, qaala isa ibnu maryama allahuma rabbana ansil alayna maidatan min alsamaai takunu lana aidan li awalina wa axirina wa ayatan minka warsuqna wa anta xayru raasiqin maa ngi nuyu bokki jullit yëpp mhm. fuñ mën a nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew ñi ciy jullit ak ñi ci nekkut ay jullit ñu ngi leen di nuyu di ñaan yàlla mu jéggal suñuy bàkkaar te nangul ñu jaamu yi ñu koy jaamu te may ñu sutura ci kaw duniyaa bii te may ñu wér te mboole mébét yi ñu am ak eh, taxawaay yi am ngir diine ak jàmm yi réew mi ak soqali réew mi yàlla may ñu xol bu leer ak kàttan guñ ko defe bañ def ko nu kawe njort di siyaara ñëpp ci julli gi di siyaara bu baax sëriñ Muntaxa Mbàkke euh, di xalifa seneral de Mouride di siyaara sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mokhtar di siyaara bu baax sëriñ Basiru Mbàkke Abdul Xaadir sëriñ Abdou Samad mu Cheikh Sohaybu Mbàkke ak mbooleem njabootuk Cheikh Ahmadou Bamba gépp waa di siyaar tamit waa Tiwaawoon sëriñ Babacar si Mansour ak sama sëriñ Cheikh Moustapha si maktum ak njab moom mboolem njabootuk murtasidin wal murtasidaat mm-hmm. di nuyu njabootuk alaaji Ibrahima Niass Kaolack mm-hmm. njabootuk maam Khalifa di nuyu jamaatu Ibaadu Rahman mm-hmm. di nuyu harakatul falaax di nuyu laayeen di nuyu mbaal ummatul islam bi yëpp ndax tey yàlla dogal na eh, l'islam bi yëpp tey ji ñoo bokk dundalanoo ayit eh, gi eh, kon ñu ngi leen ci ndokkeel di ñaan yàlla coono yiñ amoon ci di woor ak di jéem a dàkk bëgg-bëggu yàlla yàlla nañ ci fekk uh, ngërëmam te fekk ci te am ci yiw bu ëpp wiñ ci doon soxla woo di ñaanal tamit autorité politique yi nekk ci réew mi te ko tàmbalee ci ki nekk ci bopp bi muy uh, président de la république ba Bassirou Diomaye fay ak ki topp ci moom muy monsieur le premier ministre uh, président Ousmane Sonko ak mbooleem gouvernement bi yëpp di ñaanal tamit mu Modou Mame Diop mi nga xam ne moo jiite assemblée national ak mbooleem député ya fa nekk yëpp. di ñaanal tamit opposition bi eh, ñi ci mbooleem ñi politique te bokkuñu ci biir eh, gouvernement bi. ak coalition yeeg atu politique beeg société civile beeg ñëpp. loolu defe naa ne nuyoo bu mat la boo xam ne daal dina daj mbooleem kuy doomu Sénégal rek ñu ngi lay nuyu. te di la siyaara te di la baalu àq di nuyu journaliste yi di nuyu artist yi di nuyu mbëri làmb yi di nuyu euh, euh, sportif yi ñëpp daal waaw ku ci nekk rek ñoo ngi lay nuyu di la sargal ci bis bi di la baalu àq macha baal ma ah. waaw naa la yàlla na yàlla boole jéem. <laughs> amiin ndax yenn saa yi ma tooñ la ma jaale waale rek. Euh, <laughs> xam ne mu génn àdduna ak tey maa ngi doog a am occasion toog ci plateau. Mhm. muy suñu mbokkum taalibe. Mhm. muy Mouhamad Boun Abdallah Dionne. di koo xam ne mën nañoo wax ne sax dem gim dem rafet na ndax euh, da doon jéem a euh, taxawu réewam di jéem a def ay effort pour bokk ci liy soqali réew mi ak liy doxal réew mi ba loolu jural ko mu wut parti wala mouvement mu jural ko mu dem wut constitution euh, dem wut ay parrainage am mu jural ko mu fexe ba bokk ci ñi nga xam ne maanaam jàppoon na ne ni réew mi war a doxe am na ci ay xalaat ba ci biir loolu mën nañoo jàpp ne sax yàlla moom ida jaa ajaluhum laa yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun euh, euh, yàlla moom fu faatu jote rek euh, saadu ci dolli ko waa jàpp nañ ne ci coono yi boole woor campagne wut maanaam ci lu mel noonu ci la ko tawat dabe ba yàlla moom ko ci kon tey bi mu koy moom ajjuma ju mujj ci koor kon jàpp naa ne euh, moom mën naa ñu am jortul rafet ci moom ba nga xam ne euh, yàlla mën na ko boole ci jaam ñi nga xam ne da leen di jéggal te yàlla na ko def daal ko yërëm te yàlla na ko def dugal ko na te sàmm njabootam ngi fi bàyyi ak euh, ay xarit ak lépp lu mu fi bàyyi rek te yàlla daal fi mu féete woon njabootam yàlla féete leen fa fi ko njabootam féete woon fu ko raw yàlla na ko fa yàlla féete fa mu nekk Euh, parce que homme politique la woon. koo xam ne borom xam-xam la woon. Euh, àndoon ak président Macky Sall. ci bu yàgg te ba muy nekk premier ministre. ànd ak moom bi mu nekkee président de la république. ba mission Macky Sall jeex. mu jóge fi kon jàpp naa ne sax dañ ko daan tooñe double biton Macky Sall. kon jàpp naa ne mission Macky Sall dafa mat moom tamit mission mu daal di mataale. Euh, yàllaa xam di boole. kon lépp daal yàlla na nekk li ci jub ak li ci jubul lépp li ci baax ak li ci dëng lépp yàlla na ko yàlla soppal li lu mat te fay ko ko ay yiwu fa mu nekk te classe politique bi fi des muy waa Benno Bokk Yaakaar ak ñu mu doon àndal ñëpp ñu jàll leen ko tey ñaan yàlla euh, mu sàmm leen te aar leen mm-hmm. waaw tout cas jërëjëf Cheikh bi macha mm. allah kàddu yi am na solo mm. rafet na. Mm. Euh, en tout cas par ma voix Sénégal 7 présente ses condoléances les plus attristées ki nga xamante ne nii moom mooy euh, famille wala ñi nga xam ñoom ñooy séq famille John bu Mouhamed Boun ah donc nga xamante ne nii tey jii ñu ngi doon amal lii di levée du corps bi ba daal di kaa jébbal boroomam yàlla na su sedd ci kawam te yeexe ñu ko. alors mu ngi noonu xam ngeen ko door nañu suñu émission ñu ciy ànd ak euh, Serigne Cheikh Bara Ndiaye. Euh, waxtaan wi dina ci gën a euh, fës tamit euh, lépp loo xamante ni jàpp nañ ne lu soxal réew mi la ak tolluwaay bi mu gudd wala mu gàtt dinañ ko jéem waaye fi ñu koy tàmbalee tey ji wax naa ko mooy ñu ngi doon amal li di ci suba si julli ñaari rakk yoo xamante ne nii ci ay dal fitre di korité waaye li ñu nemmeeku dàmbale moo di ne ren ji ci réew mu Sénégal wala ci àdduna wërngal këpp daanaka benn korité la ñu nemmeeku loolee Cheikh Baara Cheikh Baati ban jàngat nga ci mën a def. waa sant yàlla hmm, sant yàlla bu baax a baax euh, parce que euh, mënoon nañoo bañ a koreendoo parce que bu fekkonte ne démb weer yu feeñul rek. Mhm. Euh, ku mel ne ñun dañuy continuer te démb moo nekkoon séntu ba mujj ci ñi nga xam ne ñoom dañoo njëkkoon a um. Mhm. kon donc weer yi dafa feeñ démb ñëpp gis ko. Mhm. loolu day wane ne kon xëy na mën nañoo rafet njort ci jullit ñëpp. Mhm. jàpp ne ñi ñi mhm. ñoom ci ay euh, duñ gis woor duñ gis weer daan na ñoom bëgg ñoo waree ndoog ibaadu yi wala bëgg ñoo waree ndoog tiijaan yi. kon gisuñu ko. nga xam ne ñoo ko tay ne gisuñu ko. Euh, ñu mel ne ñun ñi nga xam ne tamit léeg-léeg ñeene gis nañ ko ñu nit ñeene gisuñu ko daal di xaaraat ba beneen bis ñu woor. day wane ne ñun ñu ko gisoon maanaam amuñu benn problème pour bokk ak ñoom wari mhm. loolu rek laa ci gis mhm. mooy ñoom ñi nga xam ne dañuy faral di njëkk a woor wala ñuy njëkk a ñu ngi leen di wooye ay ibaadoo mhm. surtout damay bañ a caricaturer euh, jàpp naa ne amuñu benn gene ci njëkk woorandoo ak ñun dafa fekk ne xëy na ñoom dañuy jàpp weer yi feeñ na ñun it amuñu problème ci wareendoo ak ñoom mais dañuy jàpp ne weer yi feeñul tey bi nga xamee ne weer yi feeñ na ñu ñoom ñu gis ko ñun ñu gis ko amuñu problème ci dañoo wareendoo te gis nga lépp jàmm la kon yaakaar naa ni ñàkk a wareendoo gi itam dafa rafetul nag xëy na mm-hmm. waaye du dara maanaam gis-gisu diine la mm-hmm. waaw kon daal ni mu amee ren ji yàlla yàlla na wëy hmm. ah, ñuy ñuy ñuy bokk ñu ñëpp di julleendoo donc di woorandoo di defandoo lépp daal alors ci ci biir tey ji ci lii di korite gi tamit euh, gis nañu ne euh, imaam yi ñu ci bëri def nañu ay xutba hmm. euh, xutba yëpp daal di tënku ci daanaka ni ko njiita réew mi di son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar fay defee hmm. mooy di woote ngir lépp ñu àndandoo booloo mooy unité Euh, déjà euh, ndax lu baax la ci ndorteelu li nga xamante ne ni moom mooy euh, gouvernement bi mu jiite moom Bassirou Diomaye Faye ndaxte fi mu toll nii gis nañu ne féewaloo amoon na mais ci unité la ñuy woote ni mu ko defee imaam yi defee ko itam noo koy jàngatee Cheikh Bara. waaw moom njëkk moom mi nga xam ne mooy njiitu réew mi. Mhm. tey mooy bisam bu njëkk mu dem julli ji foofu ci mhm. grande mosquée mhm. euh, loolu nag liñ ci jàngate bari na mhm. que ndawewaay gi maanaam at yi euh, ak euh, taxawaay bi c'est la première fois ñu gis njiitu réew boo xamante ne maanaam ci at yooyu la toll taxawaay boobu la taxaw loolu wax dëgg yàlla lu ñu kii la soo xoolee ñoom Ablaye Wade ak Macky sàll ah, noonu da xam ne vraiment daal jomaay ni mu leen gënee féete ndaw dafa feeñ lool. Ah, euh, loolu lu lay marqué la boo mm-hmm. xoolee. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. deuxièmement bi ci des mooy moom def na discours. waaye jàpp naa ne discours la boo xam ne tamit boo ko dégloo. discours bi olofe na séeréer na maanaam sénégalais na. da nga ciy yëg sa bopp. sénégalais bi dina ci waaw yëg ne ki koy wax moo ko bind. xam nga léeg-léeg ngay wax loo xam ne yow yow yëgoo wax ji bindoo ko mm-hmm. dañ ko bind ci protocole rek ne la am waxee ko nii ne la waxal doo ko yëg duñ ko yëg mm-hmm. wax bu jógee ci xol ci xol lay dugg waaw waaye boo ko bi boo ko boo ko waxee te jógewut ci yow mm-hmm. du ñëw ci ñun maanaam doo yëg wax ji yow mi koy wax ñun duñ ko yëg dëgg la waaye ku xam Diomaye yàgg ko seetaan ci ay palaato yàgg ko déglu muy live di def ay waxam da nga yëg ne lim la doon wax tey moom moo ko wax euh, te it gis ne nit ñi yëg nañ ko dégg nañ ko beneen bi ci am solo mooy discours bi dafa matale. Mm-hmm. te dafa suufewu dafa suufeel boppam. wax en tant que benn sénégalais. Mm-hmm. boo xamante ne dafa jiite ay nit waaye gënu leen. Mm-hmm. te euh, maanaam da ngay gis ne daal maanaam dafa dugal boppam ci biir sénégalais yi. Euh, baalu àq gi mu baalu àq. defe naa ne yàgg nañ di def discours ci njiitu réew mais ni mu ko defee tey euh, mosuma ko dégg. voilà daf ko daf ko matale. tey def ci lu spécial mooy tudd nit niti daaray alxuraan yi nga xam ne ñoom ñoo sponsorisé bis bi ndax mhm. imaam bu mën a doon tey mhm. bu sëriñi daara yi duggul ci sa yow doo jàng doo defaru bay taxaw di jiite ay nit kon la mu tudd leen la fekk mu rek am na fu mu leen ah, wax dëgg non bis bi dañ koo moom mhm. te loolu xam nga sañ dañ naan lu am rafet kon bu amutoon ñaaw daaw ñu tudd sëriñu daara yi ci bis bi waaye day mel ne daaw doon dara mais bi ñu tuddee tey maanaam da ngay yëg ne maanaam ndeke yoo rek lu rafet la. Mhm. parce que man bi ma ko dégloo li ma ci gën a marqué mooy loolu. mooy jàngalekati alxuraan yi daara yi nga xam ne dañuy yeer di jàngale di defar nit. Mhm. sant naa leen gërëm naa leen. macha allah loolu vraiment képp kuy sëriñu daara jàpp naa ne mm, gis nga sa bopp tey. Mhm. ci biir discours joomaay. sénégalais bi gën a néew doole ak bi ëpp doole président taxaw ne maa ngi lay baalu ak bu ma la tooñee ak bu ma la tooñut. àq bi ma yëg ak bi ma yëgul maanaam ni mu ko ràbbee wax ji dafa hmm. dafa daw yaram dafa dugg ci nit ñi loolu moo tax bi mu paree kon ko doon tàcc bi waaw wax ji moo dal nit ñi ko doon tàcc fàtte nañ na sax ci jàkka lañ taxaw hmm, waaw fàtte nañ ko parce que discours bi moo moo leen dugg rek ñu tàccu mais su doon luñ programme la foofu kenn waru fa woon a tàccu parce que jëmaa la mais yëguñu ko sax yëg-yëg la daal waaw yëg-yëg lañ ko tàccoo hmm, voilà parce que wax ji moo gàtt te ëmb lu bari te am njariñ te ñu yëg ni ki koy wax euh, ni mu ko waxee noonu la ñu mu koy waxal dégg nañ ko. mais ci biir wax ci mu ngi ciy wax daanaka ngay sentir ne moom mu ngi xalaat sax génnam ndax dem na bay wax naan niñ ma joxee mbir yi maa ngi ñaan yàlla itam bu may génn ma jokkale ko noonu keneen. waaw loolu mooy. patriote loolu ci njiit. patriote buñ ko waxee muy koo xam ne yow doo gis sa bopp mais génération bii di ñëw ngay gis. Mhm. ñun yéene bi ñu am pour defar Sénégal ba mu nekk Sénégal gu mucc ayib pour ñu teg ko ci yeneen loxo yi ñëw. Mhm. ñi ñu jiitu ñañu ña leen jiitu ña leen jiitu ñu xalaate woon noonu mhm. yow boo ñëwee sa jàmm dina yokk sa wërsëg dina yokk sa lépp dina yokk dëgg la damay wax ne américain bi tey jii lépp moo la ko ëppale mhm. américain bi nga maaseel ngeen bokk bis bu ngeen judd bokk at mu ngeen judd boo ko seetoon su fekkee nangu naa jàng moo la raw su nangoo liggéey moo la ëppale mhm. dégg nga su nangoo euh, toog du benn place moo la ëpp sécurité maanaam bu duggul ci ay jéem a def banditisme maanaam moo la gën a wér daal moo la gën a jàng moo lay gën a am lépp parce que ay maamam dañ koo jiitu woon di defarug dundam. dëgg la moo tax bi mu ñëwee dundam day yomb ci moom. day yomb ci yow nag da ngay gis ne loo wuti wut doo ko am te loo wuti sax balaa nga ko am sonn. loo jàngut maanaam mbir yi day jafe ci yow lool la ko jiitu nag mooy say maam dañ laa jiitu mm-hmm. noosee sa dund bala ngaa jiitu mm-hmm. moo tax yow boo juddoo noos jafe la waaw balaa may sénégalais mën nay noos noos la waaye noos yombu leen ndax suñuy maam dañoo noose suñ dund gi ba noppi ñu doog a ñëw <laughs> looloo tax nag ñu woote ci patriotisme mm-hmm. mooy nga xam ne doo euh, doo gis sa bopp yow mais da gis sénération future bi nga xam ne mu ngi ñëw nga fexe ba nga xam ne réew mi euh, day dox ci yoon maanaam kenn du jaay doole kenn kenn du sàcc alali kenn mhm. duñ ger mhm. lépp am transparence réew mi am état de droit mhm. bon gouvernance suñ ko defee rek maanaam réew mi moom même bu vision bu normal sax bon gouvernance fu mu am euh, jàmm day am euh, bu jàmm amee nit ñi liggéey Sénégal yi ñàkkuñu jom bariwuñ histoire euh, ñu liggéey rek maanaam mbir yi dox bu ko defee yow yaay tan sa doom moo lay tane sa doom doomam a koy tane su yàggee ñu mel na ñëpp toll na ñëpp Mm-hmm. ñu gis tamit ci ci ci jàngat ah puisque ngay analyser moo tax ay image yoo xam te ne ni bii mooy deuxième fois gisoon nañ ca fee di sikat ba ñuy euh, def prestation euh, serment gis nañu tey tamit ci jumaa ji mooy kilifa bëgg koo ñëw nuyu mu jug gaaw fekk ko fi mu toog ndax jug bi day métti ngir yëkkati ko euh, geste boobu tamit Cheikh Bara en tant que. analyste waaw loolu yar la. Uh-huh. dañ koo yar kooku noonu moroomu baayam la. te bi mu demee di wate ji dafa dem ci kanamu baayam mu sukk toog su fekkee nit kuñ yar la moom maanaam dañ la wax ne ku mat ku la mat baay da koy jàppee sa baay mm-hmm. ku la mat yaay nga jàppee ko sa baay sa mm-hmm. sa yaay mm-hmm. ku la mat rakk nga jàppee ko ne sa rakk ku ku tolloog yow at nga jàppee ko ne sa bopp donc euh, dara garaawu ci mooy bu gisoon papaam tey day sukk ci kanamu baayam dëgg la kon bu gisee moroomu baayam boo xam ne surtout que foofu nga xam ne imaam la foofu Ah, moom moo war a dem màggal ko mhm. nuyu ko ndax foofa cër mi ngi mel ni ku demoon Tiwaawoon fekk fa sëñ Babacar Si Mansour da nga koy màggal ndax jëmmi Alaaji Malick jëm fa toogee tax bu mhm. demoon Touba jëmmi sëñ Touba jee tax mhm. day daal di eh, màggal kilifa ya fa nekk ndax ci biir su demee ci jumaa tamit day jàpp ne kooka yonante mu daal di koy màggal kon loolu day wanewaat ne dégg na diine ja ko fa andi di julli si yemul ci julli waaye da koo déggaale ñu gis premier ministre am tamit ci boobee wàll moom mu ngi julli ci daanaka buntu këram loolu tamit message la de ci ci homme politique kooku nag moom moom moom dafa spécial. Hmm. waaw kooku moom moom toujours dafay wane. Ousmane dafay wane waaw maanaam Ousmane moom àdduna dafa xëy mu gont hmm. waaw vraiment bëggul àdduna. waaw hmm. te nag maanaam néew na kuy rëy rëylu yàlla rëyal la. néew na ku nay lool yàlla di la jox. néew na ku bëgg siiw wala bëgg daraja yàlla di la ko jox. yàlla bu bëggee joxe daraja day fekk ci ñu wàcc mu jël yéegal mm-hmm. bu bëggee xool ku mu wàccee day xool ñiy yéeg yéeglu mu wàccee leen mm-hmm. nii nit ñi bëggee Ousmane Sonko ak ni ñu ko joxe seen bopp ak ni ñu ko fonke mm-hmm. da xam ne rek fonk moom moom ci boppam boo fekkoon ak rëy rëy loog ngand ngand loog yu mel noonu mi ngi ci moom xol yi nit ñi sax ñoo ko dul jublu waaw ndax am na ñu ko gën a bëgg a siiw fuuf bay sangoo luy siiwalaati waaye mën nañoo siiw waaye duñu moom nit ko dëdd àdduna laa ci gis rek mm. voilà parce que jàpp naa ne mënoon naa ñëw masaalikul ci naan ga ma jullee mm-hmm. mënoon naa dem ci jumaa jam jullee sax bu demoon mm-hmm. dem ba ca kanamu imaam ba dëgg toog mm-hmm. parce que noonu la darajaam toll waaye lee mu def de yaakaar naa ne euh, suñu classe politique bii jàll amul kenn ko ko ci xalaat dem ci mbedd lal sax si jaadu gis naa Cheikh Mahi Niass mas koo def Cheikh Mahi Ibrahima Niass nga xam ne loolu tasawuf la mm-hmm. nit faw nga am dimension boo toll pour mën a sànn ci sa daraja yem ak mm-hmm. nit ñi waaw nit ñu bari maanaam seen daraja moom dañ koy jël ba mu jeex ñu yóotuloo ci teg mm-hmm. waaw waaye mën a sànni sa daraja yem ak nit ñi loolu cëru yàlla la waaw toujours gis ngay gis wax dëgg yàlla euh, du nitu du nitu àdduna daal Ousmane Sonko dinaa ci ñëwaat. en attendant moom Ousmane Sonko mooy premier ministre bu Sénégal. Bassirou Diomaye Faye moo ko def premier ministre. waaye moom itam mu tabb ay ministre yoo xam dañoo fas yéene ànd ak moom ci liggéey bi ah ci at yu ñu jëm ñu leen di ñaanal yàlla sax mu nekk juróomi at yëpp bu lépp jaaree ci yoon euh, vingt cinq ministres la la la ñu présenté. ñu toftal ci tamit yeneen ay secrétaire rek euh, directeur de cabinet ak secrétaire u état beeg kenn yooyu noonu donc du coup dinañu yeggale ci ci ci ci euh, ci trente daanaka mais nombre bi euh, Cheikh Bara noo koy jàngatee ndaxte bëri na coow bi bi gouvernement bi génnee ah surtout nag ñi nga xam te ne ni ñoom ñooy sunu yaay booy yi jigéen ñi ñu naan bëriwul ay jigéen néew na ay jigéen loolu tamit ban jàngat nga ci def ci gouvernement bu bees bi. waaw gouvernement bu bees bi day moom mm, bokk na lu mat a jàngat la nag. Mm-hmm. parce que dafa bokk ci li nga xam ne nit ñi buñ ko xamee rek. Mm-hmm. Euh, ndax toujours lu mat day feeñal lu matu. mbir tamit nga am ko te xamoo ko nga ñàkk ko te xam ko moo ko gën dëgg la. maanaam boo ko ñàkkee te xam ko xam ne ñàkk nga ko da koy wuti. loolu da dëgg mais boo ko amee te xamoo ko doo ko fonk. doo ko fonk donc bëggoon naa temps bu gën a bari sax tey. parce que mm-hmm. waroon na maa ñëw fii. waaw ci biir koor gi mais xam nga fukki fan yi koor gu mujj gi moom dañ laa laaj ba sonn waaw non fukki fan yi koor gu mujj gi ci la ci laa juum dugal ci dugaloon ko ci mhm. te wax dëgg yàlla loolu moom euh, kii yi may nekkee guddi mhm, mhm. du ma may daanaka bëccëg gi ak gan yi du ma may dara daanaka te fukki fan yi mujj yi moom ñun donga daar yi dañ koo xaw a fonk moo tax dëgg la yaa waroon teg salaam maa ngi koy jéggalu bu baax euh, loolu da dina ma may ma jàngat ñaar fukki ministre ak juróom yi nga xam ne Ousmane Sonko tabb na leen ci ndigalul euh, président Diomaye Faye d'accord ñaar fukki ministre ak juróom yooyu maanaam tabbin wi buñ ci ñëwee ñu bari dañoo wax ne dafa yàgg dafa yàgg waaw dafa yeex lu dañuy xaar nañu ba sonn foofu nag nga xamee ne sénégalais moo texet hmm, te du du jéem a essayer dara gis nga euh, temps bi Ousmane Sonko formé gouvernement hmm. mooy temps bi gën a gàtt ci histoire Sénégal ci nit falu daal di ciy fonne gouvernement. Hmm, nu mu gën a gàtte waaw ni mu gën a gàtte mooy da ngay xam ne Macky Sall bu ma du ma jàpp date yi mais defe naa ne euh, la euh, ay fin dimanche dimanche bu mujj ci février ca 2012 ah. Mhm. ca la dem euh, ca 2011 ci la dem kii nu mu tuddati élection. waaw présidentielle 2012. Mhm. kon donc dem na deuxième tour. Mhm. man ngaa wax ne premier mars Macky Sall am na. quatre vingt quatre vingt pour cent ci yaakaar ne dina nekk président de la république. Mhm. parce que dem na deuxième tour. dëgg la deuxième tour yi su ma juumul mi ngi nekkoon entre dix neuf mars wala le vingt quatre mars. boor yooyu rek. waaw kon le vingt quatre mars euh, wala daal dix neuf mars donc Macky Sall xam na ne kon nekk na président de la république parce que gagné na élection yi. Mhm. jàppal ne ba mu dem ba mu demee deuxième tour. mi ngi mhm. tàmbali di xam kan la war a def ministre lan laa war a def lan laa war a def. biñ demee ba mu gagné. Euh, xam na ne war na maa mën a def euh, ministre nangam le temps en en attendant ñu proclamer résultat yi conseil ne joxe ko définitivement ñu doog a dem mu def prêter de serment. Mm-hmm. Euh, la après doog a tabbu premier ministre am. Mm-hmm. léegi da ngay gis na kon Macky Sall au moins. Mm-hmm. première tour ak bi muy tabbu premier première ministre mat na un mois. au moins deuxième tour biñ bi mu koy leer na gagné na bi ko Ablaye Wade di félicité ak bi muy joxee premier ministre mat na quinze jours mhm. boo ko xooloon ku xool date yi mhm. Ablaye Wade tamit bi muy gagné Abdou Diouf même même procédure bi la jarul mhm. ma ci bu dee euh, ma Jomaay Fay nag da ngay xam ne dañu fomm élection yi la vingt cinq février la ñu waroon dem élection ñu fomm ko ñu jël ay jours élection yi mooy lépp dañ koo jaaralewul ci procédure bu normal parce que dañ ko dañ koo dañ koo taxañ ndax bëggoon datu la trois bañ ñoo raw taxañ boobu dafa tax la 25 février. Mhm. Euh, ci bëccëg ci la Diomaye Faye doog nga xam ne moom nekk na président de la république. dëgg la donc kon la 24 ci bëccëg. Mhm. Diomaye wóoru ko woon ba xam élection yi day dem deuxième tour. wala du ko dem kon mhm. donc mënul woon a xam dara ci lii ñëw ba muy xalaat. ne man dinaa jël jibi wala danaa jël Cheikh Baar wala dinaa jël euh, Imam Dramé def ko lii def ko laa mënu ci woon a xam dara daf ko dafa ñëw rek la vingt cinq daf ko bett daal entre la vingt cinq ak la la la trois bi le deux avril bi muy joxe premier ministre am la vingt cinq ak la la deux matul set matul une semaine mhm. defe naa mhm. matul pas une semaine ci la yem ci la ci la génnee mm, premier ministre mhm. léegi xoolal ñi nga xam ne ñoom dañ doon am un mois wala ñu am quinze jours pour defar gouvernement yow nga ñëw une semaine nga bëgg cee defar gouvernement léegi ñu bëgg laa natt ci bis bii bi ci Macky Sall egsee joxe woon na gouvernement bi kon donc yow war nga ko mën a joxe te fekk Macky Sall xoolal ni ma la ko waxee li mu amoon ci temps ak ni procédure bi jaaree yoon su jaaree woon yoon noonu Euh, kon loolu nga war a wax. te moom amoon na temps sax bu ko neexoon mu jël temps waaw waaw kay loolu laa bëggoon nit ñi bàyyi ko xel rek parce que damay gis ñu baree bari loolu. da leen a rëcc da leen a rëcc mooy élection yi. Euh, conseil constitutionnel sax délai yi mu daan joxe pour pour pour lii ko taxañ mhm. délai ko taxañ fii kay lépp dañ na nga xam ne mhm. jour yooyu ñu ñu lekk ci fomm bi mhm. maanaam yoo xam ne jomaay moo ko moomoon pour defar gouvernement léegi dañ ko ci lekkaale kon waroon nañ koo mayaat sax yeneen une semaine pour mu mën a fonne ab gouvernement bu normal loolu première fois lay tontu ñi nga xam ne dañuy wax naan non gouvernement bi dafa dafa xaw a tardé <coughs> deuxième bi ci des mooy jëmmi gouvernement bi dafa nekk gouvernement boo xam ne dana la wóor ne benn parti nekkul ci ginnaaw benn lobby nekkul ci ginnaaw benn daayira nekkul ci ginnaaw benn coalition nekkul ci ginnaaw dañ ko tànn objectivement hmm. dama doon waxtaan ak maam bi doon waaj bi ñuy fonne gouvernement bi bi ñu génnee Sonko rek moo ma ciy hmm. laaj ma ne ko man Sonko bett na ma bettu mais man li may ñaan mooy ministre yi ñuy génnee mu cohérent ak projet bi Pastef doon wax sénégalais yi mhm. su loolu amee rek dina ma neex mhm. mais man am naa ci satisfaction totale mooy vingt cinq ministres yi dafa cohérent ak euh, discours Ousmane Sonko cohérent ak projet bi nga xam ne moo taxoon patriotes yi nangoo engagé wu topp ci ginnaaw euh, Ousmane Sonko di ko di ko di ko politique mais ci ñu doon xaar mu gën a tuuti nombre bi waaw gis nga euh, léegi noonu ni ko formé kon da ngay xam ne du dañoo xool coalition. Mhm. parce que bu doon dañuy xool coalition. da nga naan Abdourahmane Diouf kon warut a nekk ministre. Mhm, parce que ñu mujj ñëw ci coalition bi la bokk. ci la bokk. Euh, bu fekkonte ne dañuy xool tamit euh, ak ak ak ak coona ay dëmbooj at yi am. Hmm? Mhm. Euh, ci ñoom coalition bi mel ni moom ko ci am. amul man gis naa ay dëmbooj deux heures du matin gis naa ko quatre heures du matin gis naa ko waxtu wu nekk. mu ànd ak gars yi di campagne. fekk naa ko Mbàkke ma ne ko yow wéroo. mu ne ma <laughs> dama ko tooñ sax quoi di ko tooñ noonu pour wax ko rek mu bàyyi xel que ne mag la daal mm-hmm. euh, sa wér gi yaram ak yooyu euh, tee ngaa euh, mu ne ma moom noppalu déedéet <laughs> dégg nga topp ci gaa yi uh-huh. ànd ak ñoom ba mat bu fekkoon te ne coono rek mooy tax a fayee ko kon defe naa ne moom mooy jël premier ministre bi mm-hmm. parce que kenn gënu ko cee sonn mm-hmm. bu loolu jàllee ma madame Mimi Touré am na xam-xam am na expérience te jàpp naa ne engagement bi mu am ci damay wax ne bu Macky Sall daanoo maanaam en quatre-vingt pour cent Mimi liggéey na ci lu mhm. loo xam ne kenn liggéeyu ko ci mhm. daf ko daaneel dafa Macky moom la nekkoon dafa daan daf ko xam dafa daaneel euh, Macky Sall mhm. euh, saahiran baati baatinan nag waaye gis nga ne bi ñuy jël tamit jëluñu ko mais malgré tout dàmbooj am na xam-xam am na engagement ba ba xeex jafee la doon xeexal Ousmane ko jàpp naa ne mi ngi woon ci biir coalition bi te am na capacité doon ministre te jëluñu ko mais malgré tout nag li ñu boole woon ñun xam nañ ko mooy euh, man sax doon naa xaar ñu jox ma CNG euh, làmb ji mais joxuñu ma ko. lamb ja waaw <laughs> mooy ma seere <laughs> man CNG laa bëgg a CNG de lutte <laughs> bu la bira jàppee di mu arrière nag ma dagg la daa dox de waaw ku mbër mu mbër tar rek nga dagg koy million ku damay dagg rek CNG xam nga ministre ay cinq millions loolu la ñu fayee ko CNG yi ñëw ku arrière ñu dagg lañ dagg ña waaw ñoom bàyyi ba ngay njëkk a dagg ko prix dagg bi laa yokk rek <laughs> dina ma rey léegi gis nga gars yi kenn waxul dara parce que dañu kontaan sax parce que ñoom ñu doon xaar rek mhm. mooy li ñu jaay sénégalais yi euh, bu ñu tegee gouvernement bi maanaam mu nekk loo xamante ne dina méngoo ak li Mimi doon wax méngoo ak li Aïda Mbodj doon wax méngoo ak li Dame Mbodj doon wax méngoo ak li capitaine Touré parce que foofu dogguma la de méngoo ak li Ayib Daffé ñoom Matar Sène ñoom ñëpp ñu doon wax di ci di ko jaay sénégalais yi ba nit ñi nangu leen a topp suñ defoon gouvernement boo xam ne dëppoowut ak loolu rek foofu la problème bi nekk. parce que ñu bëri. mais ñoom dañu beneen côté bi dañ doon wax naan li tax mu yéex dañoo nekk di xuloo seen biir ah, coalition bi dafa rëy ku nekk da bëgg a jiitu donc mais hmm. après gis nañu ne bi mu génne. Ah, daanaka li ñu xaar noonu la demee. léegi affaire bi moom leer na naa ñu ne que bi mu génnee man jàpp naa ne ñëpp ñoo bokk lu ñu wax mooy kontaan euh, gis ne lii daal maanaam lii mooy li nga xam ne moom lañ doon xaar. Hmm. donc kon côté boobu aspect boobu mooy aspect tànn bi. waaw mooy tànn bi foofu loolu laa ciy wax mm, ñeneen ñi koy wax maanaam dafa am nit ñoo xam ne waratu Sénégal waratuñoo considérer seen i wax surtout que ñuy wax ci Ousmane Sonko muy Madiambal Diagne mm-hmm. waaw Madiambal Diagne xibaaru palais Macky Sall lu mu la ci wax dëgg la. Mm-hmm. waaye nag xibaaru palais yi Diomaye Faye nag lu mu la ci wax du dëgg waaw. ndax jegewu garde rousse bu sax du ko gisati moom bu soobee yàlla parce que palais ba moom dañ ko dencal ñu am compétence te jub dégg <laughs> mën naa taxaw fële nag di def météo mais garaaw loolu moom mën nañ ko koo may mais nekk ci xolu nguur gi di di manipuler jaxase moom loolu moom yaakaar naa ni jeex na mhm. euh, mën naa toog naan Mimi Touré gi xëccoo wala diw mais après rek dina xam ne moom ay la yoon li mu wax du dëgg waaw léegi loolu am na léegi nag ñu ñëw ci jëmmi vingt cinq ministres yi jëmm yi waaw cinq ministres yi nga ne mënoon naa tuuti mën na dama gis ne ñu bëree bëri nag dañ ne mag Sall defoon na vingt cinq ministres euh, kon Ousmane Sonko defaat na vingt cinq ministres après ñu ne waaw Macky Sall jóge na ci vingt cinq ministres mm. dem ci trente trois ministres premier gouvernement bi pare da ci dolliwaat huit ministres mu trente trois mm-hmm. euh, léegi euh, kon Ousmane Sonko danañ xaar sax boo moytuwul mu yokk mm. gis naa ñu bëri foofu lañ jëm waaw léegi nag loolu daf ñuy may ñu ñëw ci vingt cinq ministres yi Macky Sall parce que damay wax toujours lu mat day feeñoon lu matut mm-hmm. vingt cinq ministres yi Macky Sall yi ñëw ci Macky Sall dafa théorie woon ne gouverner ensemble gagner ensemble gouverner ensemble mm-hmm. loolu moo tax mu def vint cinq ministres ba pare dafa diggee woon ne day def vingt cinq ministres mhm. dafa wax ne day def gouverner gagner ensemble gouverner ensemble kon benn benn benn benn benn promesse mi ngi noonu mhm. boo xam ne da ko dig ñi nga àndal mhm. ñëwaat ci sénégalais yi ne leen vingt cinq ministres laay def kon donc ñaari promesse la joxe woon di jéem a ñaari promesse yi bi mu ñëwee respecté na ko au bi mooy def na vingt cinq ministres mais dama bëgg a xam man damay jéem a xam toujours lan moo tax Macky Sall lan mooy pertinence su Macky Sall jóge ci vingt cinq ministres dem ci 33 ministres. Hmm. premier del jàllaat ko. romb ko ak lan mooy pertinence su est que bu est-ce que loolu mag li dal Macky Sall ba mu dem def vingt cinq jóge ci vingt cinq dal ci trente est-ce que dina dal Ousmane Sonko ak Diomaye wala du leen dal. waaw ndax man damay jàpp ne bu ma sukkandikoo ci man ci euh, recherche yi ma ci def nii. Hmm. maanaam lu mustahil la li arab di wax mustahil la xaw ma nu ñu koy waxee ci tubaab mooy hmm. lu. impossible xaw ma mooy lu mënul nekk maanaam lu jomba nekk d'accord lu jomba nekk lay doon parce que lan moo dal Macky Sall ci vingt cinq premier ministre yi mhm. Macky Sall dafa toog bi mu ñëwee dafa jël Abdou Mbaye mhm. Abdou mbay la jël ak ku ñuy wax amadu euh, kan mhm. Amadou Kane ak ñoom Pape Diouf maanaam bu ma ko waxee noonu day gudd mais dama la bëgg wax rek ne la Abdou mbay bi mu koy jël euh, Abdou mbay taxul woon Macky Sall jóg waaw ñëpp xam nañ ne dafa dem ci Cheikh Tidiane Mbaye bëggoon koo jël Cheikh Tidiane bay gàntal booba dëgër bopp gi mooy Macky lu matt mu dagg googu ñun xamuñu ko woon ci moom mu far jël Abdou Mbaye mooy ay frère mais man damay wax ne Abdou Mbaye niveau niveau nekk premier ministre amu ko hmm. waaw lu tax parce que bac plus la defoon dégg nga euh, euh, audit euh, aut xaw ma nan nu mu ko tuddati ASET la tudd euh, mooy euh, kii diplôme bi mu am France la ko amee dinaa ko dinaa ko xamaat léegi. bisimilah nañ dem. Euh, hmm, dégg nga. Mhm. dama xaw a dinaa ko xam. Mhm. léegi moom bac plus 3 daal la def. diplôme bi boobu mu am nag jàpp naa ne moo ko njëkk am ci senegal looloo taxoon diplôme bi riche na mais nag njàng mu kawee kawee kawee moomu ñu foog man jàpp naa ne amu ko. amu ko waaw nga jàpp ci ci bu ma sukkandikoo ci diplôme bi mu am. ñu ko amee France euh, euh, kon. moom mm-hmm. bac plus trois la am. d'accord troisième année lay amee la amee diplôme boobu mm-hmm. ñëwaat. parce que diplôme bi ñu ngi ñuy wax nañu ca HEC. Paris waaw donc université Panthéon. Sorbonne waaw foofu la. diplôme bi tudd léegi nag loolu lañ ma loolu lañ ma jox. waaw quelque sorte donc moom ñuy wax ne. am na hmm? euh, diplôme mu haute étude si je ne me trompe pas. ah su haute étude financée. commerciale haute étude commerciale. d' accord étude commerciale. benn diplôme la boo xam ne. moom mooy HEC. waaw HEC e haute étude commerciale. haute étude commerciale étude haute étude dama a wax ci kii quoi. haute étude commerciale dafa nekk loo nga xam ne. maanaam Abdou Mbaye ko njëkk am nag fii ci Sénégal à l'époque bari na nag ginnaaw bi mm-hmm. mais jamono boobu noonu Abdou Mbaye ko njëkk a dugal Sénégal mm-hmm. mi ngi nekk bac plus 3 xam naa jàpp naa ne premier ministre du am bac plus 3 man jàpp naa ne du niveau boo xamante ne euh, mën nga ko tëkkale tey ak suñ benn ministre sax ci ministre yi nu yor mm-hmm. donc loolu mooy première nga ñëw ci deuxième ministre bi nga xamante ne moom la tegaat muy Amadou Kane Amadou kan da wax ne quota la buñ joxoon Amadou Makhtar Mbow Amadou Kane su ma juumul ah turandoo amadu Makhtar Ba la loolu wóoruma ñoo bokk tur mais goroom la moo yor doomam ju jigéen d'accord maanaam moom dafa takk doomu amadu Makhtar Mbow soo jaaree fii ci wedeen bi di nga gis fu bind midi kan waaw ndaw si moom loolu mooy jabaru amadu Kan mii d'accord dégg nga Amadou Kan ma amul woon niveau moom tamit ci jiite finance man mhm. ndax mag Sall bi mu ko ko joxee dafa gis na diis na après la ko fi jëlee indi amadu Ba mhm. donc nga ñëw ci Euh, yeneen personnes yi ci des. Euh, ku mel na ñoom Mimi Touré du ma ko wax ñooñu am nañ niveau bi <laughs> ak Aly Ngouille Ndiaye. donc ak euh, ñoom Aïva Marie Coll Seck. Mm-hmm. ay Mariama Sarr ñooñu waxuma leen. mais da xam ne léegi pour ma ma bañ a topp li may wax muy gudd parce laa waxoon émission une heure de temps laa a def non tey doo def parce que dama bari bàyyi ay gan kër ma bëgg a def rek mooy <laughs> yow may seetaan léegi da ngay da nga may li may def nii nga dem Google xam naa nag dina bari coow ak ñu mu naqari mais mooy dëgg d'accord mooy Macky Sall dafa fal vingt cinq ministres hmm. ci gàttal rek léegi ni ma ko bëgg a waxee ji bi bi mu falee vingt cinq ministres hmm. vingt cinq ministres yi hmm. léegi Macky Sall daf ci waat dem trente trois ministres trente trois ministres ñaata nga yokk kon pour pour am vingt cinq ba trente trois xam nga ñaata la huit huit la wuti waat andi ko léegi jàppal ne Macky Sall vingt cinq gouvernement vingt cinq ministres bi mu defoon maanaam huit personnes amuñu bac waaw ci biir gouvernement bi kana kana huit personnes ci ñoom amuñu bac te dafa nekk loo xam ne alliés yi ñoo ko jox ñi ci ëpp mënu leen a dàq te dem na ba trouvé ne ñi amuñu bac mu bàyyi leen ci gouvernement bi dem wutiwaat huit yu leen remplacé hmm. loolu moo tax Macky Sall jógee ci vingt cinq ministres dem dal ci euh, trente trois d'accord voilà léegi bankal sa baaraam yu Youssou Ndour moom leer na xam nañ ko jàppal ne Mata Si Diallo <laughs> liñ wax amul bac d'accord Aminata Mbengue Ndiaye amu ko hmm? waaw Ali Aïdara amu ko morngom amu ko mbay juuf xoola Ali Aydar PS a ko dugal morngom man bu Bambey dama ne la morngom waaw ah. Pape Diouf bu Bambey Pape Diouf Ali Aydar waaw écologiste euh, Benoît Samb Benoît Samb Aminata Mbengue Ndiaye uh-huh. Matasi Diallo Youssou Ndour euh, des na kenn noonu non nduur Ndour euh, des na kenn xaaral dina ñëw juma ci la bokk dégg nga am déet ma ne Juma Dieng ca la bokkoon ci Juma bokk ci léegi huit personnes yooyu en tout cas huit Malick Gakou ci la bokkoon parce que Malick Gakou ñëpp dañoo wax que ne moom bag rek la am mhm. waaw bag la am dégg nga loolu noonu la demee léegi booy xoolee Malick Gakou AFP la ko jëlee Matic Diallo AFP la ko jële mu jële Pape Diouf réew mi Ali Nguy euh, euh, Ali Aydar PS mhm. Matic Diallo AFP Youssou Ndour fekkee ma ci boole mbay Ndiaye ak morongom mbay Ndiaye dafa bàyyi postam dem ànd ak Macky Sall ba pare Macky Sall mbay Ndiaye moo nekkoon nit ku mën a waat ne kii du ma war. Mhm. booy xool ba léegi bàyyiwul Macky Sall. Mhm. loolu moo taxoon mu jël ko fal ko ministre. d'accord parce que du ko war bu dee Mor Ngom ñëpp dañoo d'accord ne sol lu rafet ak laaj poste moom moo ko dàq ñëpp. Pape Gorgui Ndong ci la bokkoon. déedéet. ah d'accord premier ministre bi laa wax. mooy ministre gouvernement Abdou Mbaye rek laa wax waaw. gouvernement Abdou Mbaye. d'accord ngay def. d'accord gouvernement bi Abdou Mbaye def. yaakaar naa Abdou Mbaye ñu ngi ko samp la 4 avril. gouvernement boobu mi ngi jeex octobre ci euh, bi. Mm-hmm. léegi ñooñu amuñu bac. d'accord amuñu niveau yor ministre. Mm-hmm. léegi Macky Sall ci la ñëwee def remaniement. d'accord benn daaneel Abdou Mbaye. Abdou Mbaye Macky Sall bëggoon naa tàqalikook moom parce que jàpp naa ne. kontaanul ci ni mu doon doxalee deuxièmement mooy ki yoroon finance attanu ko. d'accord Macky dem na ba trouvé ne dafa def erreur mooy Amadou kan parce que euh, Amadou Makhtar Mbow rek moo ko ko proposé mu jël ko def ko jox ko budget. d'accord amu ko. d'accord léegi mu demee noonu. bi mu mhm. ñëwee boo xoolee bi mu daaneele gouvernement bi Youssou Ndour dafa dem moom. Mhm. voilà parce que Youssou Ndour après bi mu xëccoog euh, raas in si kenn fak jotu ci dafa xaw a gedd. Mhm. daal di génn. d'accord bi mu génnee. léegi kon benn allié noppal na ko dem na mu jël Abdou Aziz mbay teg ko fa. Euh, léegi boo xoolee Mbaye njaay dafa gaaw débranché wu ci moom daal dem jëli euh, koo xam ne mën ngaa wax ne am na diplôme mooy euh, Ablaye Daouda Diallo. Ablaye Daouda Diallo dàq Amadou Kane dugal Amadou Ba daal di génne Mor Ngom daal di dugal defe naa ne Khoudia Mbaye ko remplacé woon léegi li ngay gis mooy. Macky sàll bi mu bi mu tojee gouvernement bi lan la wiise mhm. li wiise mooy dafa indi dafa indi euh, xoola Xaadim Diop. Mhm. boroomi diplôme la. Xaadim mhm. Diop bu Touba. andi Marito Niane. ci la dugg. indi Abdou Latif Coulibaly. ci la dugg. andi euh, Thierno Alassane Sall ci la ko dugal. andi euh, Khoudia mbay xujja mhm. mbay waaw urbanisme ak habitat andi xujja mbay mhm. euh, andi euh, Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo waaw maanaam boo xoolee huit ministres yi mu dugalaat ñëpp ñu normal la moo yoroon budget mais bul fàtte na dolli na dolli na huit ba noppi dàq ñett léegi nag foofu ngay gisawaat beneen problème ban <coughs> mooy euh, après Marème Faye sàll dafa ñëw dugal ko taam mooy jël a jël jël Mbagnick Ndiaye dugal ko mhm. comme ñu amul bac ñoo fi nekk Mbagnick njaay amul bac mu ne ko dugal ko Mbagnick amul bag mu dugal ko dégg nga. Mhm. léegi euh, daa pare PIT daal di ñoom tamit am nañ ko paa tudd Mansour Sy. Mhm. moom it amul bac. Mhm. mu dugal ko. mu dugal ko. léegi kon Mbaye Ndiaye dem na amul bac mais problème bi mu defoon mooy jël ba jël ministre de l'intérieur jox ko ko amul xam-xam. léegi jël na Abdoulaye Daouda Diallo teg ko fa réglé na réglé na problème boobu d'accord jël na budget teg fa koo xam ne am na diplôme muy Amadou Ba mu réglé problème boobu hmm. léegi boo xoolee Abdou Aziz Mbaye mi remplacé Youssou Ndour daanaka tanewu ko hmm. mais nga génnee mbay njaay ak ak ak kii léegi amaan nga ñaari place kon ci ci bennoo ci ci ci bennoo ci ci ci APR ci boppam am na quota wu deux places parce que mbay Ndiaye ak Mor Ngom dem na <laughs> mu dugal fa Manick Ndiaye ak ak ak ak ak ak ak clé hmm. dégg nga léegi noonu la affaire bi demee nga xam ne alliés yi ñoo ko sonal ñoo ko imposé ay nit yoo xam ne amuñu bag amuñu xam-xam amuñu compétence yor dara dégg nga léegi parce que man damaa xamul ba xam ñoom Idriss Seck dañoo réyoon a nekk ministre wu Macky Sall parce que booy xool alliés yëpp dañoo lànk dugguñu waaw dañoo dugal seeni nit Ousmane Tanor jëlul ministère Idriss Seck jëlul ministère euh, euh, Moustapha Niass jëlul ministère comprendre nga ñoom Dansokho ñoom kenn jëlul dégg nga dañu dem taxaw Ablaye Bathily ñoom ñëpp kenn jëlul ministère mais dañu dugal ay ay nit yoo xam ne taxawuñ mhm. loolu moo nekk premier problème Macky Sall loolu est-ce que yow yaa ngi xaar mu dal mag Ousmane sonk ci gouvernement bi mooy nga dox ba mu yàgg ñu la la ndekete diw amul bac wala ndekete diw amul niveau seere ministère bi léegi kon foofu da nga bëgg wax da ngay xam ne kon mooy li ma la wax ne lu mustahil la maanaam lu lu jomb ñu ne Ousmane Sonko dina jóge ci vingt cinq ministres dem ci trente ministres wala su ci loon dem tamit mën naa nekk beneen réalité mais du réalité ñàkk xam-xamu ay ministres la wala mu nekk réalité loo xam ne da nga yor ay alliés ñi dénk la ay nit boo leen dàqee coalition bi tas da nga leen di téye par force te amuñu compétence liggéeyal réew mi. du da ngay jël pour caser. <coughs> voilà léegi foofu la Macky Sall ñeme yokk ministre. après la jógewaat foofu di dolli. d'accord dégg nga soo seetlu Macky Sall ñi mu àndaloon tañ am xam-xam da leen mhm. nanguwu leen a bàyyi Macky Sall. moom Mimi Touré daanaka boo koy xool caaxaan teqalewu leen mhm. fat-fat la teqalewut maam ak i noppam booy xool Aly Ngouille Ndiaye daa dem ba doyal bàyyi booy xool Latif Coulibaly daa doyal bàyyi booy xool Thierno Alassane daa doyal bàyyi booy xool Marito ñaan dafa doyal bàyyi Augustin dégg nga booy xool non Augustin Tine la moom di maanaam dentiste la am jàng na am na bac du ma wax amul bac mais niveau ministère amu ko. xam nga état de Sénégal dafa am lu muy def. waaw ah, ah man li ma lay wax lépp demal Google ñi may seetaan nañ dem Google ñu seet. état du Sénégal dafa am ministère boo xam ne dañ koy nëbbu ñoom. ban la mooy force forces armées. waaw booy xool GMGA bi mooy nekk ministre. CMGA waaw mooy ministre bu dul ñëw conseil de ministres toujours doo mës a gis ñu jël koo xam ne. dafa jàng armée comme tey ni usman Sonko ko def mooy jël jël jël ab général teg ko ministre de forces armées mu fekk fa seen gaa boo xam ne même général la ñu bokk même galon loolu amul da ngay jël ay ay ñoom bekaay bekaay Jóob teg ko ci non ay bekaay Jóob d'accord boo xool Omar moo ko mujj nekk mhm. ki fa gën a yàgg mooy Augustin Tine moom ngay wax mhm. dégg nga booy xool ay ñoom euh, ay ñoom euh, maanaam euh, Malick Sall koo xam ne xamul dara ci armée lim xam mooy day ñëw ñu signé kayit yi mu demal leen conseil des ministres yóbbu ñu signé mu indiwaat parce que secrétaire lay doon. d'accord ministre bi dëgg dëgg dëgg du ñëw conseil des ministres. mooy nekk GMGA bi. bii paa nag Ousmane Sonko dafa ñëw uh-huh. maanaam armée bi mu falal leen ministre. waaw parce que ci biir am na fa ay généraux est-ce que dina ko jur. est-ce que day gën a dox du ko dox mais en tout cas loolu moo daan am mooy jël koo xam ne euh, kii la rek nga tegal leen ko foofu. GMGA bi dëgg-dëgg moom mooy defar ay affaire am kee moom day dem ak ñëw rek conseil des ministres presque secrétaire lay doon loolu noonu la daan tëddee te demal xool histoire yëpp doo ko mës a gis tey c'est la première fois léegi euh, kon ni ma la ko waxee ñoo ñooñu ma la wax ñëpp maanaam amuñu xam-xam ci xam-xamu yor am ministère di ko doxal léegi lan ngay gis foofu mooy kon ñun dañoo am problème ak xam-xam hmm. waaw lan mooy xam-xam parce que maa ngi lay wax classe politique bi yëpp maa ngi wax amul bakk amul bakk xam naa ree dinañ ma ree mais google dinañu àtte mën naa bañ gis nga ministre gis nga bépp bépp homme politique boo dugg ci euh, google mhm. waxula lu mu am rek xamal na jàngut ñi jàng ñëpp demal xool ñi jàng rek nga bind dañ la koy jox te li ma lay wax man jëleewuma ko google ndax man du ma lire français waaye xam naa ne moo fay nekk ñii ma la wax ñëpp jànguñu hmm. jànguñu <laughs> jànguñu tubaab jàng nañ tubaab mi amuñu niveau suñ classe politique gu Sénégal nag boo bëggee dégg-dëgg. actuellement nii fii fii bi fi Ousmane ko ñëwee ak ñoom Boubacar kamara ay ñoom Abdourahmane Diouf ñoo ko innové def ko muy muy muy muy muy muy muy muy ëttu xam-xam soo bëggee dégg-dëgg. moo tax Sénégal. parce que dafa impossible woon mu dox. Cheikh Bara. waaw nga baal ma nag dogguma la après ma lay bàyyi nga continuer sa raisonnement mais mais li nga wax nii baa nekk kon suñ ko jëmmalee. baa du exclure ku ku mel ni yow ku mel ni man ku mel ni keneen ak keneen nitu daara yi sax surtout ndaxte mën nañoo jël ministre def ko koo xam te ne ni xëy na njàngam ci tubaab soriwul amul bac <coughs> mais xam-xamam xëy na day jéggi dayo macha allah. waa xam nga ëttu classe politique bii ñu am. Mhm. actuellement dafa bari ñu am xam-xam. wax naa la Abdourahmane Diouf wax naa la da ministre Bamba Kane wax naa la Boubacar Camara boo bëggee dégg-dëgg tamit parti Pastef moom mooy parti xam-xam. waaw la nekk ci ay cadre boo xoolee niñ formé seen gouvernement bi sax ngay xam ne lii parti cadre la. d'accord dégg nga maanaam xam-xam moom fa la nekk rawatina coalition Diomaye ñëwaat ñi am xam-xam ñëpp ñemee dugg. d'accord donc loolu dama la koy dama la koy wax dama la koy décortiquer gis nga tey ku mel ne Idrissa Seck. Mhm. wax mën naa bari mais nit lu topp ci bagam doo ko gis. Hmm. waaw Khalifa Sall amee bag dina ma jaaxal bu ko amee tamit lu ko topp doo ko gis su ko amee nag jaaxal na ma parce que ñu bari nee nañ amu ko ku mel ne Bougane tamit ñu bari nee nañ amul bac Pape Djibril Fall bac plus 2 la. am na bac rek. plus 2 lan la man ban métier nga man ah journaliste la. waaw journaliste. waaw mais métier xam man a teg doxal kooku bac plus de tanewu la yow tanewu ma man dàq maa liir dàq maa bind tubaab mais dàqoo ma ëppoo amoo métier aw ma métier. ci luy defar doxal réew quoi nañ waxante dëgg mhm. maanaam classe politique boobu lañ am Barthélémy amul bac <laughs> te daal bac nga indi waaw par exemple non xam nga bac mooy maa maanaam mooy mooy xam nga boo defee bac après ngay dem nekk euh, étudiant mooy ngay doog a étude étudier xam nga la ñuy wax étude nga doog a dugg ci étude euh. maanaam jéem a xam loo mën a xam ak loo mën a def euh. mais ki am bac wala ki amul bag kooku xamagul maanaam moo ko amul moo ko duggul école ñoo yam soo ci mhm. dindee lii rek bind mhm. moo moo analphabète bi ñoo yem la loolu moo fees dell suñ classe politique bi yow du la jaaxal euh, mas ngaa jàng maanaam par exemple tey yow mas ngaa toog ba gàgganti ko wala nga am benn affaire bu la lëntoon nga seetaan Moustapha Niass mu xamal la ko xam naa fi ngay wax mas nga koo gis du wax xam du ko bind du ko wax d'accord mas ngaa gàgganti ko ci ci ci ci Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm dem si yàlla uh-huh. doo dégg sénégalais bu wax ba ne la Ousmane Tanor Dieng waxoon wala na mu ko waxee woon wala la mu bindoon nii la jaar xam-xam jaar nii Amadou Ba mii mas ngaa gàgganti ko ci moom malgré que def na mitin yi wër réew mi fépp mais max ma benn moowu xam mas a jëlee ci Amadou Ba. Cheikh nag gars am nañ xam-xam mais wa xam-xam xam nga xam-xam xam nga la mel. xam-xam ak xamle xam nga mooy lan. mooy lan mooy nit ak jëmmam. mi ngi mel ni jibi turu jibi ak jëmmi jibi kenn mënu leen a teqale. Mhm. gis nga xam-xam. Mhm. boo ko amee. booy wax rek di jàngale ñu bëri nag dañuy wax naan diw Ousmane Tanor Dieng wala Amadou Ba wala diw dafa mënta wax pourtant Souleymane Basir Diaw Diagne mm-hmm. Mm-hmm. Souleymane Basir Diagne men mm-hmm. philosophe mënta wax mais est-ce que nit dina dina taxaw ñemee taxaw ni pose question ne Souleymane Basir Diagne jàng na wala jàngul nit ñeme na ko ah, kenn ñemewu ko posé Iba Der pour pourtant njàngam demewul noonu mais niveau am ci xam-xam buy wax ak yow mënu mënu werante ne kii di wax ak yow boroom xam-xam la mais moo tax Amadou Ba buy wax ak yow seet man dama ko seetaan 2STV yi ci benn jour tijjiwaat sama téléphone seetaan ko may mën a nduur fay ba mu jeex mhm. man mën na ma teg sama loxo ci kaamin ni kii doon wax ak man moom du ko am xam mais maa ngi gis mu yor yi lijaasa ñu ne enaam la génne inspecteur impôt nangam nangam mais ndax am na waa léegi doo xam lijaasa yi lijaasa yi nga dul xam noo koy def mais foofu dama lay wax benn problème. boo xam ne mag ñi may seetaan duñ ko weddi. mooy il faut ñu distinguer ENAM avant 2000 ak ENAM après 2000. Hmm. waaw ENAM bii ñoom Ousmane Sonko jaar dégg nga hmm. ak ENAM bu njëkk ba bokkul. Hmm. déedéet lu ko wutale waxuma nag ki nga xam ne dafa jaar ENAM dem nekk magistrat. par exemple tey ku mel ne procureur Ousmane Diagne. ENAM la génn depuis quatre-vingt-neuf. waxuma koo xam ne da nga jànge ENAM iti jàng bu jógee ca tool ya wala nga jóge fa nga jóge def say itit ba am note yu la mën a dugal concours ENAM nga dem def ko at ma dem nga xam ne defoo nen ak politique mais man maa la wax fii tey te kenn du ko dindi. lan képp koo dégg mu daan politigal PS. Mhm. te jaar di diplôme moom du dara moo kayitu journal yi ñoo yem. Ah. te kooku noonu doo gis mukk ci àdduna ñu ne bind na téere wala ma nga ca plateau ba ma ngay wax xam-xam wala invité nañ ko ci université ma ngay def ay exposé wala tey maanaam euh, mu ngi def conférence ci dara hmm. doo ko mës a gis ñoom ñëpp sax dañoo ragal débat duñ dem télé wala bu ñu def duñ def débat contradictoire parce que ñoom xam nañ ne toog nañ ci ay diplôme mais seen bopp xam-xam nekku ci hmm. loolu mal maa la ko wax fii te comme neex demal xool man li may wax ay fee la ku neex na nga weddi ma waaye mm. mais mais mais ay fee la gis nga ENAM avant Ablaye Wade moo ko génnee présidence mm-hmm. école la boo xam ne bi tubaab yi dem dañoo jël Outre-mer euh, mooy mooy école Outre-mer bi nekk France ñu ñu ñu jël ko pour jà forme suñu suñu suñu suñu suñu kii pour ñu mën a garder archives yeeg këyit yeeg maanaam xam lan mooy administration mm-hmm. ñu jël école bi bàyyi ko président Sankolin yor ko mm-hmm. Sankolin bi mu ko yoree def ko nag école boo xam ne étudiants yi politigal PS la ko ndayale woon képp ku def résultat ci politique bi mu jaarale la ENA ENAM defal la concours nga am nga am nga am admis. d'accord léegi li may wax nii. Ouais. ki may seetaan mën na ko jaaxal. Hmm. léegi dama lay poser benn question ki may seetaan. Hmm. nan nga mën a nangoo sa xel nangu na yow Moustapha Niass moo jëkk a jiite étudiant PS moo ko jëkk a jiite. Hmm. fan la jaar ENAM. bi mu jaaree ENAM lan la def am fan la nekkoon di liggéey biir présidence la nekk di liggéey bi Moustapha Niass duggee ENAM kan moo ko remplacé woon ci ci ci étudiants yi Djibo Leyti Ka bi mu fa nekkee ba ba ba ba ba waa PS gërëm ko fan la dem ENAM lan la def am dugg euh, euh, ENAM bi mu paree fan la doon liggéey présidence walla mm-hmm. bi mu paree xam nga kan moo ko remplacé. Saliou Ramaka. bu PS. moo remplacé Djibo Ka ci bopp étudiant wu PS yi. ba mu defee ba waa PS gërëm ko lu mu defati ENAM. dugg ENAM atme fu mu doon liggéey présidence. ba Saliou Ramaka pare xam nga kan moo ko remplacé. El Bekay Seck. dégg nga ma gaañu woon ca ca ca ca 2011 ca accident ba. Ah, ah, ah kii ba euh, kii ba euh, nu mu tuddati avion ba daanu woon ci xaw ma Comore la dëkk yu dëkk Afrique yi <coughs> El Bekay Seck moomu. moo remplacé waat jiboka moo remplacé rama saaliwu ka saaliwu ramaka ci tetu étudiant PS fu mu jaar ENAM bi mu amee mooy première koo xam ne daa génn ENAM nekk préfet Dakar préfet Dakar da <laughs> daa daan nekk préfet Koungheul préfet Matam préfet Tamba bay bëgg a dee doo nga ñëw ci ville bi c'est la première fois après jaar présidence maanaam ñu defal koy privilège mhm. léegi nag lii moo lay wan tey doo ma génneel opposant bu dul Habib si mhm. koo xam ne da doon opposé wu nekk ci parti gos dégg nga mhm. wala PDS nga dem di politique waxuma na ngay jàng ni sam jàng ko mhm. mais di politique ñu xam la ci étudiants yi politique ba noppee nga def concours ENAM amul mel noom Habib Sy moo ci jaar réussir ko moo tax ba léegi moom sax da koy ndamoo toujours mooy premier étudiant opposant bu mas a bàyyi mu dugg ENAM dem concours réussir ko parce que képp ñu ko parce que méritam la mais ab part ça képp koo dégg mu jaar ENA étudiant PS la. d'accord Amadou Ba yaayam militant PS la woon moom étudiant PS la woon. sac bu dee ENAM la jaar bàyyu Barthélémy Dias mi bokkul woon ci ñoom waaye dañ ne daan moo leen fa nekkaloon maanaam ñaari tànk la taxay woon ENAM la jaar Ablaye Makhtar Diop ENAM Djibo ko ENAM. Moustapha Niass ENAM Tanor Dieng ENAM dégg nga euh, Madiang Khary Dieng ENAM maanaam demal jël jeunesse bi socialiste bi yëpp ENAM lañ jaar mais booba ENAM école la boo xam ne maa ngi la koy rappelé waat encore une fois présidence la nekkoon. Hmm, d'accord léegi nag ab Ablaye Wade moo ñëw daan na école lu nekk présidence. Hmm. daat koy génneewaat dugal ko ci administration bi en deux mille un defe naa. après 2003 ci la ci ñoom Sonko jaar léegi nag defal différence nga xool ku mel ne joomaay ku mel ne ñoom Ousmane Sonko ku mel ne ñoom euh, nu mu tuddati ñoom Mame Boye Diao ñoom ab Ablaye ñaan catégorie googu nga xam ne 2000 génération bu mujj bi ci biir nguuru Ablaye Wade lañ jaar ENAM xoolal ñoom ba xam di ci gis kenn ngay nattable ba xam kii am na xam-xam wala amul xam-xam mm-hmm. léegi lii nag lan la lay wan mooy classe politique bi ci boppam dañoo jàngut léegi lii lan lañ ko nëbbee mooy ENAM dafa am ñu fa daan jaar ñu jàng mooy magistrat yi ak administrateur civil yi nga xam ne ñoom seen yoon nekk ci politique. Mhm. mais ñooñu boo déggee homme politique yi fonk droit de réserve nga xam ne boo dee yéen a bokk fu ngeen jàngandoo bokk fu ngeen jaar droit de réserve moom day mel ne moom mooy premier médicament bi ngay war a naan moom bala ngaa def dara. droit de réserve droit de réserve parce que yu nii lañ bañ nga révélé ko ba pare aaye nga politique aaye la nga wax. aaye ah, la conférence de presse aaye ah, la lépp ne la droit de réserve léegi homme politique yi nga xam ne ñoo doon njuuj njaaj maanaam di falsifier ay kayit presque mën ngaa wax loolu waaw ndax ñi ngi doon def concours boo xam ne dañ leen a programmé jox leen quota est-ce que xam nga ne jamonoy PS gendarmerie sax dafa amoon quota am na ñoo xam ne fii gendarmerie boo leen xasee na leen diplômé koso nga dañuy mer parce que suñ koso astuloo lañ daan jox quota hmm, d'accord parce que am na ci ñoo xam ni. lépp buñ la wanee PS PS boo bëggee dégg-dégg duñu ay patriote te sérieux wuñ amuñu da ngay waaru daal. d'accord dégg nga léegi nag. léegi ñu delluwaat ci waaw. léegi ñoom ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy ñoom lañ defal yëf yi ñu bénéficié wu ci ci ci ci yëf yi. Hmm. xam nga lu ñuy wax ñoom. lan la ñuy wax homme koo wax maanaam homme d'état la du wax homme d'état la du wax parce que looy wax léegi ki xam ki jàng am mérite xam da nga naan ko doo fi politiquer parce que bu politiquer sa ñàkk mérite feeñ. sa ñàkk xam-xam feeñ mm-hmm. danaa la doo fi politiquer mm-hmm. ki ki amut xam-xam nekk ci kaw di yor yëfi ñu ne homme d'état ñu ne homme d'état voilà ak secret d'état moo yor secret bëgg ñoo rey ak homme d'état ak secret d'état lii dong la léegi nag seetal bi nga xamee ne dem nañ ba mu yàgg nag ku mel ne Ousmane Sonko nekkoon ci biir administration ñu tënkoon ko ci ay ay ay ay droit de réserve ak yooyu mu mu xëttu ko mu fippu daal mu xëttu ko ñu dàq ko mu génn taxaw ne Ousmane sonk saa ni wuti xeer xasut kenn defut kenn dara xam nga lan la doon def yor discours donc su waxee rek nit ñi di ko topp lan moo tax Amadou Ba du wax nit ñi topp ko lan moo tax Djibo Ka waxut nit ñi topp ko lan moo tax bàyyi Barthélémy jaas mi du wax nit ñi topp ko euh, Sampol Dias c'est parce que quel discours est-ce que di nga gis maanaam tey par exemple Moustapha Niass def benn discours rek maanaam convaincre ci ay sénégalais dañ jënd ceeb jënd diwlin séddale jënd ciment digge jàkka ji ba pare wuti ndoom ba takk ko pour nit ñi ñëw pour lan la ñàkk a jàng. Sénégal fii boo daan xool jamonoy Wàdd ah Serigne Moustapha ñoom ñoo daan ñëw Ablaye Wàdd moom kàngam la waxuma ko. del xool Sénégal képp kuñ ne la dafa jàng maanaam classe politique bi ñu nekkoon góos ñoom Ablaye Bathily dégg nga ñooñu ay ñoom Iba Der Thiam ay crack lañ parce que seen njàng yombutoon. seen njàng yombutoon mais ñi nga xam ne. ci amicale yi lañ nekkoon classe su El Hadj Diouf geeg ay seen neenaak ay ñoom Moudou Diagne Fada xool leen. man mën nañoo yor diplôme mais duñ yor xam-xam. Mhm. lii mooy dëgg. tey nag maa ngi waxtaanee réew mi. tey kay yaa ngi waxtaanee réew mi <laughs> dëgg dëgg dëgg yaa ngi waxtaanee réew mi nii la demee nag. te ñi ñi lay ñi lay suivre sax yaakaar naa ne dégg nañ fi ngay waxee ah. waaw ah pour comprendre bu baax. léegi da ñëwaat ci ci gouvernement bi man man parce que mélange bi ñu bëri am na noo xamante ne nii noonu lañ ko bëgg a comprendre. léegi du la jaaxale yow. waaw maanaam Senghor ak Ablaye Wade ci homme parce que ñooy berceau bi Senghor mooy teetu. socialiste yëpp Ablaye Wade daanaka mooy teetu libéraux yi ci des yëpp jaaxalu la Ablaye Wade bind na Senghor bind na ci littérature lu xaw a bari. Hmm. mais lan moo tax benn homme politique Sénégal mosul bind benn benn dara Abdou Diouf mémoire la bind mémoire du xam-xam hmm? Djiboka ci boppam la bind parce que genre mémoire la mooy doomu baykat doomu sàmmkat bu xaw ma mujj xaw ma lan loolu la bind hmm. bu amaatee keneen ku ci bind mooy euh, <laughs> euh, nu mu tuddati Aliou Sow bi mu fasee jabar ji mer daal di bind ci jabar ji <laughs> doo ma wanaat benn homme politique bu ñëw indi livre tekki taabal. Mhm. te Ousmane Sonko bi mu ñëwee barki démb la dugg ci politique bind na ci pétrole bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy bind nangu étudiants yi di ko invité ci ay exposé muy dem di conférence lu tax gars yi ci des duñ ko def nangu débat contradictoire parce que xam na ne am na xam-xam mhm. biñ ci jógee discours am lim ko mën a may mais Ousmane Sonko dem na ba deux mille dix neuf am sept cent mille voix sept cent mille voix moom la Macky Sall am nekk président de la République. Mhm. parce que taux participation bi moo bokkut. mais sept cent mille voix yooyu Ousmane Sonko am doo wax ne ma am na ci détenu politique musta woote manifestation musta xeex kenn amul kenn problème problème ruqam la nekk nekk ci groupe WhatsApp yi Ousmane Sonko bi muy doog a tàmbali groupe WhatsApp yi dañ ko ci daan éviter mu ñëw. Mhm. wax ay waxam dem. foo ko invité mu ñëw di wax parce que xam-xam la yoroon di ko joxe nit ñi di déglu mu leen di convaincre ñi déglu mu leen di convaincre boo seetloo demal nga seet li ma lay wax Macky Sall ministère ministre bu mu mas fal maanaam maanaam gouvernement bu mu mas a fal ñi ci ëpp amut bac ñoo ëpp ñu am bac ñu amul niveau parce que boo xoolee kay Macky Sall ci ñii rek la ko kaloon Aly Ngouille Ndiaye marikon Marie ab lay Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba maanaam xeet yooyu rek la dajale woon nanguwu leen a bàyyi. kon su ma la déggee mooy niveau. maanaam benn niveau gi soog a am daal. benn catégorie nit rek la dajale woon. di leen fal ñi des ñëpp ay ay ay xoos ñàpp la ñu doon. d'accord léegi bi mu demee ba 2019. sénégalais bu nekk na dem Google mu xool. 2019 mhm. Macky Sall bi mu ñëwee. ministre Sonko sonal ko ci ay discours mu xam ne moom ñii mu àndal amuñu niveau tontuwaay ji. d'accord mun mun munuñu koo indil problème mu gis ne nit ñi kat nekkate dañoo bëgg xam-xam waa ji mi ngi leen di convaincre ci xam-xam lu ñu def mooy daw léegi nag xoolal gouvernement bi mu teg gouvernement boobu boo ci dindee Cheikh Omar Anne dindi ci Néné Fatoumata Tall dindi ci Moustapha Diop bu Louga ñi ci des ñëpp ay cadre la gouvernement de cadre Macky Sall boobu la ko doog a sànni parce que booba gis na ne kon nit ñi nekkate problème mu xam-xam lañ soxla kii mi ngi leen di wax xam-xam man awma ñu ma àndal mënuñu koo tontu donc mi ngi may bëgg a rey d'accord mu dem jël ay cadre teg mais cadre yooyu nag da am ñoo xam ne cadre lañ ci këy mais duñ cadre ci bopp d'accord Amadou Ba cadre la ci kayit mais du cadre ci bopp. d'accord Moustapha Niass cadre la ci wu këyit mais du cadre ci bopp. Mhm. dégg kon dégg nga ñii ma la wax nii doo ci man dama ne la ban sénégalais soo masaan gis homme poli ëtt politique bi ngànk Sidi Lamine ñas bañ koo wàccee. sénégalais Sidi Lamine rek moo amoon niveau wu jàkkaarloog ñoom maanaam wax yëngal leen woo leen ne leen ñëw leen ñu ñëw nañ dem xeexi ju dem xeexi. d'accord boo xoolee discours yi daaneel waat mag Abdou Diouf. boo ci dindee yi ci Moustarchidine yi def ah li ci Sidi Lamine Niass def daanaka mu jeex mais surtout que nag li daaneel Wade moom. classe politique bi doon xeex ak Wade amuñu niveau. kenn ci ñoom xamu dara mënuñu laa wax lu la yëngal sénégalais yi looloo taxoon ñu am problème mu gëm politicien. d'accord soo gisee ñu daawuñu jox politicien xaalis mais bu ñu la gisee dañ lay encaissé. sooy wax ak moom ñu ngi lay déglu mais dañ naan kii day fen parce que dañuy jàpp ne li ngay wax. amul amuñu niveau mhm. bu dee ku mel ne daanaka ay taalibe la yoroon yoo xam ne duñ taalibe yi njëbbalam mais taalibe taalibe yii ñuy giñ Sonko naan taalibe patriote ñoo xam ne dañ da leen a convaincre foo leen woo ñu ñëw loo leen laaj ñu jox la ko Sidi Lamine boo masaan taxaw buntu wal fajiri ne da nga koy laal nga gis sénégalais yi fàq fekk la fa pourtant boo doon jàpp benn homme politique bu ñu mas jàpp Sénégal fii sénégalais yi duñ génn pour lax lan muy discours niveau Sidi ko yoroon da ngay mën a wax ne bi ko Sidi tegee Ousmane Sonko ko jëlaat dégg nga looloo tax tey nga gis ku ma ne Abdourahmane Diouf jóge ca làng ga ñëw. d'accord génn dem. kon loolu mooy dégg xam-xam fii ñi am xam-xam xamante nañ. gis nga maxtar Cissé mii organiser élection yi. waaw ba muy nekk directeur cabinet trente ans defe naa matu ko. Mm-hmm. premier gouvernement Wade. premier gouvernement Wade bi mu faree Omer Sarr ministre de pêche Makhtar moo nekkoon moo nekkoon euh, euh, nu mu tuddati. Makhtar Cissé bu Dagana Makhtar Cissé mii bu Dagana moo nekkoon. Euh, directeur cabinet nekk fi nekkoon fi récemment tamit njiital Sénélec waaw kon lan ngay gis. moo organisé élection pass xam-xam du nëbb mhm. ay daa mënta wax ak daa am d'état ak lépp lan la mu gàtt xam-xam. kon troisième léegi nag kon man maa la wax fii tey. Mhm. ñii di politique fii boo ci dindi ñi ñi amu njàng la wax de mu jeex daanaka say baaraam du ko fees. kon Cheikh Bara waaw man maa la ko wax ña ña fa jógee nag moom bu la seen diplôme yi nax parce que diplôme bu politique la yow xam nga ne El Hadj moos bu taxawee ne la avocat la ah avocat la ngañ Demba Touré ne la mhm. nga seetaan ngañ Demba Touré trente minutes muy wax nee ko xoolal waxal ma ci boisson bi buy wax nga xam ne boroom xam-xam a koy wax waxal nee ko ngañ Demba Touré big bi loo ci xam su la tontoo rek di nga yëg ni kii di la tontu boroom xam-xam la mais jëlal El Hadj nga jël deux heures de temps wu El nga génneel ma ci benn toq xam-xam te nag ñii ma la wax ñoo ñoo ñu nekkoon ci ci ci ci ci ci ci ci ministère yi nag ensemble moom mooy foo xam ne moom moom moom fer ijji amu fa mais Cheikh am na nag ñoo xam ne ay autodidacte lañ ko mel ne Doudou Wade tey amul bag mais a ah, am na xam-xam ci li ba jàpp wala boog ku xam procédure assemblée nationale. xam na ko bu baax sax ku mel ne Moustapha jaxate bag la yam bac. dafa dem ensemble dafa dem ah, kii maanaam cartouché ñaari examen la fa def amul dara mu dem. université bu dee ku mel ne euh, Jules nee na yeex naa nekk avocat parce que dafa cartouché ci économie ñëw ay Diouf saar yi parce que mooy diplôme yi ñu am mooy ñu aayut feen mm-hmm. dégg maanaam classe politique bi da ngay laaj ana borom xam-xam yi léegi nag lii mooy liñ naan système nag. d'accord waaw lii la Ousmane Sonko di wax système mooy nga jàng. def étude nekk inspecteur impôt xam li nga xam ay nit ñu jàngut jubuñu du ñuy patriote toog ci kaw di décider ci sa kaw il est temps ñoom waa impôt et domaine ñi dajaloo xam ne ñoom ay boroomi diplôme lañ ñu dagg bu mu njaam ci parce que yow su ma la waxee Moustapha Niass bi ko mag Ablaye Wade falee lan la ko dàqe woon xam nga ko. lan la ko dàqe première mooy ñàkk niveau. Moustapha Niass boo gisee ñu ne woon Senghor ne Abdou juf teg ko première ministre mu bañ. dem jël Habib Thiam mi mi nga xam ne ñoo bokk école bu ñu génne ñoom ñaar problème mu niveau la. Mmh. Abdoulaye Wade bi mu ko falee xam nga Moustapha Niasse lan la def. lan la def inondation bi gën a métti bi amoon 2000. mu dem boobu mooy bi ñuy màggali bay doog a ñibbisi ci gannaaw màggal ga tuuti rek Macky Sall Moustapha ñas nee na doomam moo doon dem euh, du Sorbonne kii la waaye Boston. la doon dem di di di dem di inscrire université mu bàyyi fi problème mu Sénégal yi ànd ak doomam dem Boston pour université ba pare ñëw di ko tiitaroo ñëw naan waaw sama doom moo doon inscrire Ablaye Wade ci loolu la ko jàppale maire dàqu d'accord dégg nga kon nga gis foofu lan nga ciy gis mooy ñàkk patriotisme léegi ñii nag dañoo am xam-xam ba pare dooni patriote léegi nag foofu laay profité bala maa ñëw ci li may yeggale mooy doomi Sénégal yi nga xam ne ñii ñàkk xam-xam ñii ñoo fi nekkoon ba pare téye système bi parce que lii warulaa jaaxal baro bii baro baro baro baro Sénégal bii biñ ko révolutionné ba nit ku jàng rek di fa dugal nit yàggul baro bu njëkk ba affaire ndar ak ndakaaru la woon rek. écotal waaw ndar ndakaaru rek daanaka. ay avocat dëkk ci yenn gox yeeg yooyu wala nga gis ne euh, tey da ngay xam kool ku mel ni Moussa Bokar Thiam jàpp naa ne yaayu jabaram man ngaa wax ne li ko dugal ba mën a nekk ab avocat foofu la jaar dégg ay <laughs> Aïssata Tall Sall mi diplôme am am na yoo xam ne doo ko mën a wax mais ñii euh, ñi jàngandoo ak moom dañuy wax am yu ñu lay wax dégg ak ñeneen ak ñeneen te loom ñëpp léegi xam nga fooy xamee loolu. yow ba nga juddoog léegi mas ngaa gis notaire bu bees mas ngaa romb benn bâtiment ñi ne fii am notaire fi ñëw léegi. constat la boobu dañ koo def benn lobby boo xam ne. boo jàngoon ba nekk note ba am ba nekk ba am diplôme notaire li ñuy wax office këyit bi tax nga mën a dem samp sa bâtiment ma mën a ñëw ci yow jënd suuf nga nga nga témoignal ma defal ma li ma sa liggéey loolu nga dul am at yee weesu rek amoon benn lobby la rek bu ko téye lobby boobu nag moo ma sa nekk ci politique bi moo ma sa nekk ci avocat bi moo ma sa nekk ci bépp côté ngànk ko ku ci bokk doo ci dugg dañoo révolutionné baro bi léegi gis nga ko avocat politigal bul politique boo amul xam-xam doo bokk dégg nga politique bii léegi politigal bul politique boo amul xam-xam ci kanam tuuti incha allahu doo bokk. loolu il nous a loolu nag nañ ko def ci nañ ko def ci nañ ko def ci ci ci ci ci ci ci notaire nañ ko def ci lépp. parce que dafa il temps ñu dindi système yii. souvent nag dañuy wax ne daa am lobby bu nekk ci côté religion bi. coté religion ban mooy religieux xam nga religion moom yoruñu yëfi kenn kenn ku ne sax yëfi bàyyi nga yor ña la gëm topp la nangul la. nit nag bu ñoree noonal baayam nga naan di ko xëccoo moom yaa ko tooñ mhm. nañu waxante dëgg ku gëmut bàyyi leen ku gëm demal ànd ak ñoom ndax kenn yoru ci yëfi bàyyi kenn kenn ku ne li la yor seen yëfi maama ak seen yëfi bàyyi mais souvent dañuy indexé waaw ku doon yëfi bàyyam dañ ko koy bàyyee d'accord te ñoom yoruñu keesu état luñ kenn budget wote wuñ benn loi seenu daara lañ nekk di def li ñuy def ku leen wax yaa leen tooñ waaw yow mii xaw ma ko sa sëriñ waa boo bàyyi woon du ñëw fii dëna jël non dama ne waaw boo bàyyi woon fi ne boo jekk jikko ne ma sa bàyyi naa du ma la jël si kenn ku nekk kër sëñ ba yaa fa yaay paasal sa bopp yaa yóbbu sa bopp uh-huh. la ngay def ba la ngay def ba amanteeg sëñ ba yaa koy def uh-huh. la nga fay jëlee tamit ci di sa digganteeg yàlla xam nga ko parce que bu doon ay nax jàpp naa ne 1927 la fi sëñ Touba jóge 1922 la fi Alaaji Maalik jóge kenn ku nekk presque def nga téeméeri at ci biir suuf ku fi bàyyi woon ay nax nax jeex na d'accord la ci bàyyi nit ñi ba tey ñuy gën a dem loolu luñ xam la dëgg la nag li ngay jëlee ci sëriñ du kaas bi du kob bi mbirum ruux la ku la gis ngay dem ak ñëw danaan jëlee woo fa dara fekk yow li nga fay jëlee xam nga ko. d'accord dégg nga léegi kon li ma bëgg mooy. waaw ma bàyyi la nga daane soo ñoom dañoo dàqoon nit ñi. boo xoolee ñii Sonko fal ñu ci bëree bëree bëri ku mel ne Mabouba bër Togo la jógee ñoom ñëpp dañoo jëloon avion yi ñii ña nga UNICEF ñii ña nga ONU dégg nga ñii ña nga banque mondiale ñii nga fone fone di liggéey doomu Sénégal yi parce que ñi am xam-xam tooguñ fi. boo xoolee Mimi daa jël avion bi ñëw Yacine faal daa jël abion bi ñëw dégg nga ñoom ñëpp man ngaa wax ne kenn ci ñoom koo xam ne Sénégal gii nga toogoon amul parce que dañ leen dañ leen a sax fu ñu yàqee naak da ngay ñëw ñu ne da ngay bokk AFP wala da ngay bokk PS wala ngay bokk fii benn waay nekk ci kaw di diriger xamul dara ñiy tappale saa bu ñu tappalee ba ba ba maanaam affaire la boo xam ne ba pare kenn mënut a bëtt système bi dugg Ousmane Sonko nag moo ñëw nag bokkut AFP bokkut PS bokkut ARP bokkut IP euh, PIT bokkut fenn ñëw rek fàq affaire bi rek tegu partem mu dox léegi nag na boroom xam-xam yooyu gëm ne nañ ñëw parce que bu xooloon Sonko li ko wax li ko xam-xam ak wax may rek war na ñoo xam ne buntu xam-xam ubbeeku na. Hmm. kon Sénégal soppiku na nañ ñëw fii ñu liggéey réew mi. bu ñu xoolee ci catégorie gii Ousmane Sonko fal ci ci ci ministère yi. war nañoo xam ne képp ku am compétence te gëm ne war ngaa mën a liggéeyal Sénégal ñëwal parce que ñaara ngi ci mooy ñi Sonko fal ñëpp ci ci ci kii bi ma Mabouba Diagne maanaam banque CEDEAO banque banque banque CEDEAO seen banque bu mag bi comme comme banque saa genre BCEAO bii la. Hmm. dama fàtte nu mu tudd tuddati. Hmm. mi ngi Togo toog siège bi Togo la nekk. moo hmm. nekkoon vice président bi. mën ngaa wax ne ñim daan fay. maanaam salaire mini ñoom ñi ci ëpp ci ñoom liñ daan fay dañ daan fay nit lu tolloog salaire ministre. Mhm. kon donc ñoom bu ñu ñëwee nangu ñu leen di fay salaire ministre kon ñoom donc dañoo bàyyi. Mhm. ak bëgg senegal rek a tax. Mhm. tey boo jëlee euh, ku mel ne tey Birame Souleye Diop. boo boolee woon maire ak groupe parlementaire li muy jël ci salaire salaire bi muy touché moo ëpp ministre. mu bàyyi ko dem nekk ministre dégg nga kon boo xoolee ñoom ñëpp nag ba nga koo topp par benn par benn kenn ku ci nekk ba ci Mimi Touré mii bi mu bàyyee Macky Sall ak léegi man man xamal naa ko ñetti liggéey yoo xam ne benn bu ci nekk mën na cee jël xaalis bu dul jeex te nanguwut a dem parce que daf ne du génn Sénégal tant que Macky mm-hmm. loolu mooy patriotisme parce que gis nañ ne ñoom am nañ xam-xam te léegi buntu xam-xam ubbiku na buntu politique jeex na parce que élection yi jàll amul benn homme bu gañe sa dëkk bu paasee waa Podor d'accord benn homme politique laa wax nag bu gagné sa gox amut bu gagné sa bureau de vote amut kon donc mbir mi système bi jeex na li fi nekk mooy mérite euh, l'homme qu'il faut à la place qu'il lañ koy wax a ah. waaw gis naa ba ci démb Matar Cissé di ko wax l'homme qu'il faut la place qu'il moo fi am moom da nga dégg tubaab ku am xam-xam ñëwal ñu liggéey Ousmane Sonko li ko wax xam-xam jariñ kon war ngeen a ñemee ñëw sax di opposé wu di wax xam-xam même bu dul opposé wu ngeen ñëw teg seen CV xam ne ki fi nekk yoon lay doxal ak transparence bépp poste bu fi mën a nekk ki kay yor dafay jàng dafay am xam-xam dafay mirito post bi am jaar-jaar dégg nga te li koy war ne li koy wane mooy tey par exemple ku mel ne Ousmane Diagne tey hmm. man am naa xam naa ne biñ koy fal ministre soo jëloon téléphone téléphone Diomaye di ci seet numéro Ousmane Diagne doo ko ci fekk boo jëloon téléphone Sonko di ci fekk Ousmane Diagne doo ko ci fekk hmm. waaw képp kuñ fal ah, du ñuy xarit ku mel ne Abdourahmane saar tey mën ngaa wax ne discours am ak gis-gisinu politique am li ci wutaleeg bu Sonko bari na. Mhm. su ko neexoon mu ne ko yow bokkunu gisunu politique. Mhm. mais vision économique bi mu am ak bi parti parti Pastef di woote woo dañoo nuroo bay benn mu jël ko jox ko mu doxal ko. Mhm. tey ku mel ne Abdourahmane Diouf mën ngaa wax ne discours politique am ak gisinu politique am wuuteeg bu Sonko moo tax keer samp tudde awale. kay tudde Pastef ñu nekk ci réew mi di opposante élection législative yi jàll rek ñoom ñaar mbëkk dañ doon mbëkkante mais ñu demee ba toll ci joxe vision bi mu am ci ci enseignement supérieur ak bi Pastef bëgg a doxal Abdourahmane mate na ko militoo na ko bind na ci mhm. mu jël ko jox ko ko d'accord par exemple tey boo ko jëloon noonu noonu noonu noonu ba mu yegg tey ku mel <coughs> loolu loolu lim lay jàngal rek mooy gaañi kenn ku nekk dafa ay ay ay seen seen seen kenn ku nekk sa sa maanaam sa jaar-jaar moo la dugal ci ci ci ci ci gouvernement bi. ci gouvernement waaw. benn benn nga téere. Mhm. wala nga am mane ay ay ay maanaam Ousmane Diagne tey par exemple mane na ay ay ay taxawaay yoo xam ne képp ku bëgguta euh, ku ku bëgg ku bëgg dëgg ku bëgg nit nitu dëgg da koy bëgg même boo ko mos gis. d'accord jàpp naa ne taxawaayam yooyu ci guddi yoo xamante ne góor dëgg koy taxaw. jàpp naa ne loolu bokk na ci li tax Ousmane Sonko décroché ko def ko def ko def ko def euh, ko nu mu tuddati c'est-à-dire foofu tamit am na am na am na am na innovation comme ni mu am armee mooy ban man li ma bëgg a wax yëpp xaj bi fi tey non tey kii li c'est la première fois tamit ci histoire Sénégal <laughs> ab magistrat la rek <laughs> magistrat magistrat de métier nekk ministre de la justice uh-huh. Abdoulaye Wade premier gouvernement maam Madior Boye mm-hmm. moo nekkoon ministre de la justice. Mm-hmm. moo njëkk nekk ministre de la justice ci gouvernement mm-hmm. mais maam Madior booy nekkuloon woon ministre ah, ah, magistrat di di métier. Mm-hmm. maam nekkul woon ci baro bi. di doxal. dafa nekkoon ah, disponible na ko defe naa ci banque yi la nekkoon di liggéey. mais Ousmane Diagne biñ koy fal mi ngi ci biir baro bi. te xam nga kañ la depuis kañ la la jàll concours ENAM 89. depuis kañ 89 booba booba Jomaay day doog a dugg école. la nekk ci magistrature bi. di wëndeel kon kooku xam na lépp te mën na ko man mën na ci lu bari dégg nga kon donc boo ko jëlee tête par tête da ngay mën a wax ne euh, maanaam am nañ gouvernement boo xamante ni li ñuy wax système bu daanu système bi daanu na li ñuy wax euh, maanaam euh, objectif sénégalais yi daal ñoo ci des. ñoo ci des waaw man jàpp naa ne Sonko. mais juróomi at. ah liñ ci liñ ci naal comme ay ay proposition ndax naka la ñu mën a def ba lépp mën a jaar yoon ba ñu mën ko doxalee mooy lu ci mel ni reddition des comptes bi lu ci mel ni lu jur coow mooy franc CFA bi franc CFA bi jur na coow waaye tamit li nga xamante ne ni moom mooy yenn ci ay institution yu ñu jortu ne yu ñu jàpp ne ci projet PASTEF bi dañuy wax ne dinañ si nañ koo dissoudre mooy lu ci mel ni HCCT mhm. Euh, lu ci mel ni tamit conseil économique social et environnemental donc en ci juróomi at naka lañu mën a def ba mën a réussir loolu lépp. waaw foofu euh, il faut sénégalais xam dara mooy gouvernement bi seen gouvernement la seen deret moo ko taxawal ak seen i kaddu ak seen seen coono. moo ko hmm. taxawal surtout ça. Ousmane Sonko jiitu ci. Hmm. dara itam tóoroo na ci. def na ci lépp lu ñu ci def. ñàkk ci liggéeyam ñàkk ci lépp kon donc gouvernement bi dafa am lu spécial lu ko wutale gouvernement ya weesu woon. Mhm. bu ñu am aada yi boo ñu falee ab état après di jéem a wër wëraanu ñu def ba ŋàññi ko. Mhm. gis nga gis nga gis nga gis nga suñu suñu suñu lii ñu am muy muy muy muy révolution bii ñu def. Mhm. suñu fexee ba mu échec. cinquante ans yii dootuñu ko dabuwaat parce que nit dootu waxati nit lu mu gëm. il faut ñu xam ne ñi ko woote mate nañ ko. ñi leen ci fekk si tamit def nañ li war a def parce que benn mooy mooy mooy mooy calendrier bi Macky Sall amoon ak Sénégal du woon lii. Mhm. du woon lii. Mhm. dafa bëggoon a toog ba doyal jox ko ko neex mu toog ba doyal. Mhm. système bii ma leen wax muy jàngut am ah, du ñuy patriote jubuñu fas yéene yor réew mi jiite ko. ñooñu ñoo fi naroon a nekk di continuer dem. lii am nii. Sonko bi muy def parti da leen a bett. Mhm. dégg bi muy nekk candidat jomaay bi mu nekk candidat da leen a bett bi mu leen di gagné da leen a bett lépp ci mbettee la leen dikk moo tax gis naa ci ñoo xam ne ba fii may wax ak yow duñu seetaan RTS. Mhm. parce que nee nañ mënuñu mënuñu comprendre ne maanaam nguur gi gën na ci seen i loxo. Mhm. soo xoolee tamit c'est la première fois ay élection am amul contestation amul benn leader politique la opposition bu ñemee def conférence de actuellement. amul amul ku ci ñemee def émission de télé. Mhm. parce que amuñu lu ñu wax li leen dal yetu bopp la xamuñu fu yëf yi jóge xamuñu fu jëm man nag li ma leen di woo mooy ku ci sawar nga mhm. ñëw ñi wutal lay tool nga bay <laughs> parce que di duñ dikkaat loolu moom man maa la ko wax hmm. ñun duñ tëje duñ saagawaate duñ talaate duñ def kenn dara terrain baa ngi noonu ñoom ma buuba jaañ mii ak ñoom muntagaa jaawo mii ku amul xam-xam du wax ak ñoom hmm. voilà il faut ngeen jàngiwaat wala ngeen nangoo bay bàyyi politique bay wala ngeen dem université jàngi wuti mm-hmm. diplôme doog a mm-hmm. ñëw doog a wax ak mm-hmm. waaye toog fii rek di tappaleeka coow nii ak di jigaate kooku jeex na jeex na takk man maa la ko wax la seex Yérim ne woon bu jeexee jeex na nguuru Macky Sall jeex na mais nguuru opposition Sénégal ak homme politique yi jeex na seen système daanu na kooku c'est c'est fini loolu laa lay wax léegi nag ay gis nga xëyum ndaw ñi wala autosuffisance ci wàllu dund mhm. ak yu mel noonu pour nga mën ci liggéey ba am ci résultat buñ teg loxo 2017 ba tey ñu ngi koy dénk 2017 ñi la ko doon wax sax naruñu ko xam nga ñoom lu ñu doon def mooy yàkkamte nañ génne benn benn financement ne dañuy def benn projet pour mañ cee am ay pour pourcentage lekk ko lekkaay xaalis kese mais liggéey taxu leen woon a jóg xam nga ne yow nit du yor salaire dix millions wala cinq lu ko lu ëpp lu ëpp salaire ministre yor ay ay portefeuille yoo xam ne moo ëpp doole ministre nga nangu koo bàyyi ñëw waa maanaam soobu ci politique. ku mel ne tey maire Sandiara bii. Mhm. man jàppoon naa ne bu ñu ko nee bàyyil sa maire yi sax du ko nangu. waaw moom borom xam-xam. voilà mu nangoo bàyyi maireem bàyyi lépp ay ñoom Mabouba Diagne ay ñoom Mountaga Diawo ay ñoom euh, Moustapha Guirassy. Mhm. gaa ñi daal Moussa Balla Fofana voilà Moussa Balla Fofana ba ci fàtte naa budget budget rek tey par exemple dañoo jël Mamadou Moustapha Ba. Mhm. Euh, dindi ko teg euh, euh, Cheikh Diba léegi nag foofu nag il faut ñu xam ne l'homme qu'il faut à la place qu'il faut la Ousmane Sonko def. Mhm. Mamadou Moustapha Ba dafa tabe rek nit ñi di ko tagg mais xam-xamam ci budget des na. Mhm. parce que génnewul sax ENAM. ENEA bii la génne mooy école bii nekk ci mel Mermoz wetu école kii la génne. Mhm. Cheikh Diba ENAM la génne. ba pare en même temps bi muy def économie dafa inscrire. ENEA comme bi Moustapha Ba génne am même diplôme boobu ba pare am diplôme ENAM. d'accord ba pare dem France. d'accord jàngi bi mu ñëwee Moustapha Ba bi mu nekkee ministre de kii di ba moo nekkoon conseil technique am dafa jógee impôt domaine dem dem dem dem dem ah, dem dem euh, budget nekk fa conseil technique gu Amadou Moustapha Ba. Amadou Moustapha bi mu demee ba fi mu nekk nii moo nekkoon directeur de programmation du budget. d'accord mooy ki nga xam ne mooy toog. ni lii laay séddale fii laay def fii laay def fii laay def loolu mooy dafa nekkoon taalibe boo xam sëriñ boo xam ne moo doon topp taalibeem mhm. normalement bu dee ci côté këyit ak xam-xam Moustapha Ba warul jiitu Cheikh Diba looloy dëgg mhm. léegi nag bi bi ñëwee Cheikh Diba xëy na inspecteur impôt mais jàpp naa ne bu doon parti Pastef sonnal Pastef nangam nangam débat yeeg yéeg ak wàcc yi jàpp naa ne Cheikh Diba du nekk ministre mhm. amul ku ko gën a xam budget Sénégal parce que mi ngi woon ci biir yàgg na fa ba pare parce que 15 ans def na ko ci biir ci biir ministère boobu ba pare moo raw ay ministre am. ndax ministre yi ko doon diriger yëpp moom moo leen raw donc kon c'est normal lu cohérent la Ousmane ko ñëw dindi ki nga xam ne moom dafa nekkoon parce que poste politique wala xëy na ki la ëpp xam-xam daal waru warut nekk sa ginnaaw nga nekk ci kanamam. Mhm. mu jël seex Cheikh Diba jiital ko dégg nga bu dee ku mel ne poste bu mel ne El Malick Ndiaye ñu bari dañoo xamul biñ ne falee El Malick da nga naan poste politique du poste El Malick ñu ko sut ci réew mi bëriwut hmm. oui parce que foofu tamit jur na coow ah. Ah, ah jurul coow El Malick El Malick dafa am mérite hmm. waaw ban mérite El Malick benn mérite bi mu njëkk am mooy bu paasee Ousmane sonk mooy xaru kanam bi ñu gën a xam ci Pastef waaw ah, parce que mooy doon jokkalante mooy ki xaru kanam bi gën a xam ci Pastef El Malick mosoo koo gis ñu ne ma ngay yéeg avion ñu ne tey boppam lay doxali dara pourtant am na visa Amérique am visa fépp mosoo koo gis mu dem fenn fu dul projet Pastef mosoo koo gis mu toog ci télé wax une seconde ci boppam dégg nga mosoo koo gis sax muy tukki maanaam ci dëkk bii rek ñu ne ma ngay dem Tiwaawoon parce que ay soxlaam lay dox foo ko seen rek ci affaire Pastef la nekk. Mhm. loolu première la deuxièmement mooy dama am benn témoignage bu ma lay defal boo xam ne sénégalais yu bari xam naa ne mën nañ ko d'accord ak man mooy damay wax ne. li may wax nii damay reerandoog nit mu ne El Hadj Malick Ndiaye lu tax ñu fal ko. waaw ma ne ko dafa jànk mu ne non mais niveau am xaw ma lan comme ça charisme bi ma ne ko gis nga nag noonu laa koy waxe waat ko ni ma ko waxee woon. parce que lu ma gëm la. Mhm. boo jëloon téeméeri nit. ñu tànnal ma ci fukk ñoo xam ne ñoo gën a nitee nga tànn fukk ñu ne la tànnaatal ci fukk ñu juróom ñi gën a nitee nga tànnaat juróom ñu ne la juróom ñi tànnaatal ma ñett ñi ci gën a nite nga tànnaat ñett ñu la ñett ñi tànnal ma ñaar ñi gën a nite nga tànnaat ñaar ñu ne la tànnal ma ñaar ñii ki kenn ki ci gën a nite kenn kookee mm-hmm. mooy alaaji Malick Ndiaye mm-hmm. waaw gisuma ku ko gën a doon nit ci réew mi nit njaay la loolu ñu naan nit njaay mooy El Malick am na xam-xam am na fulla te sama baay da daa wax ni góor ñaar rek la war a am wala kilifa ñaar rek ñu ne ko lan mu ne xam-xam ak fulla waaye mu ne bu demee ba ñaar ñooñu ñu ne ko bàyyi bu ñaar yooyu mënta benn bu ci mënee ñàkk ban lay doon mu ne na xam-xam ñàkk waaye góor day nit day am na fulla am na xam-xam mosoo gis ci Sénégal nit kuy wax li toll ne li El Hadj Malick di wax te mosoo dégg mu ne sama jabar baa sama doom baa mu ne baal leen ma damaa juum fii mm-hmm. mas nga koo dégg def erreur lu ñu naan erreur yàlla na ko sama cotu làmmiñ mucc ba ci lii ñuy wax jomaay yi mooy sonko sonk mooy jomaay sax El Malick ko hmm. naa ko ci ne ko bu dee sa wax nii la barkeele nag ma ñaanal mook papa nga njaay seen émission ba moo njëkk wax ne jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay xolo lool ni mu daje wax boobu rek ni mu demee parce que mën nga wax ne looloo fal jomaay hmm. donc kon El Malick borom xam-xam la borom xam-xam la fan lay liggéeyee léegi dama lay wax benn affaire yoral un million nga wër Sénégal nga ne wax ma fu Malick di liggéeyee ma jox la ko. Hmm. doo ko xam. fan lay liggéeyee. ah du la ko wax. moom xam naa xam naa ko mais man gis gisuma mu wax ko dama ko wax. fan mais dama lay wax ne la poste bi mu yoroon moo gën a diis ministre moo gën a riis ministre. waaw ah, ban poste la. ko wax moom na ko waxal bopp waaw ah, wax ñu ko rek ah, ko di. Eh, nit ke nit kañ sama yoon man ma la ko wax dama la koy wax rek noonu. du dara di liggéey rek la bu bu dagan. Alaaji Malick boo xamee nit kuy lekk lu lew boo ko xoolee xam ne kii lu lew lay dunde d'accord kon du sàcc du fen du postu jaay dorog du dara postu liggéey la boo xam ne moo gën a riis ministre gën koo diis waaw léegi li foofu li ma fi bëgg a mooy leen nañ avancé xaaral mooy nit ku mel noonu yor poste bu toll noonu d'accord di toog ak nit ñi di wax te mu soo cee wax tey mu kenn mënu laa wax lu muy liggéeyee ma wax la ne Alaaji Malick anglais la gën a dégg ci olof waaw doo lu muy liggéeyee ma ne la est-ce nga ne El Malick la gën dégg ci xam naa moom sax dana ne loolu nu ma ko xamee. loolu moom yàlla leer mu est-ce que mas ngaa gis mu wax ba juum ba tarxiis wax benn moo angale. mosuma dégg loolu tax ma ne la El Malick booy wut nit pire nit njaay jàppal El Malick. ba pare jànge Bordeaux. léegi management lii ñu ko dénk nii daf ci jàng ba diplômé ci. du du du njuxur njaay yi de. punkal la sa sa sa wax ji yëpp est-ce que du day ñëw ci mooy temps yi terme bi ñuy wax naan toog muy dox moom mooy jeex na fi no man li may wax nii kay li may wax nii kay wax nii kay lu leer la da ngaa wax ne niveau bi dafa kawe léegi kan ci niveau bi nee nga dama laa wax man man man moom am na loo xam ne la ma koo jomb ci àdduna d'accord mooy lan mooy ñaar mooy fen gis nga fii ne El Malick bu ma seetaanoon may wax ci télé bi di ko waxal lu mu neex neex bu xamee ne maa ngi fen dana ma xeeb loolu waaw mhm. fii ne yow bu àndo ma naan ba ma mayee million yi nangam yow di nga comprendre nga di nga xam ne man fenkat laa bu ñëpp xamee ne bu ma ñëpp gëmee yow di nga xam ne man fenkat laa jomm naa toog ci télé man di waxal ak <laughs> sama moroomam nawle moo la joxut nga añ joxula nga reer maam ngay wax Sénégalais yëpp bu ñu la gëmee moom mu xam ne sëñ Baara mii di nekkati day fen bu subaa sax ku jigoo jëm sa ti caw mu ne la teyal ci waxam na hmm. waaw sëñ Bay Jaxate te sëñ sëñ sëñ sëñ Malick Basin sëñ koo laajoon luy yàq kilifa d'accord mu ne loo am jagoo ko loo mer xul ko loo xam wax ko mhm. waaw te ñett yëpp dàpp naa ne El Hadj mooy bu ma nee ma ne la ñi gën a jekko lango anglais ci Sénégal ci la bokk mhm. te musu mënoo koo xam ci moom ñi gën a rëy ay poste post poste responsabilité yu mu yoroon ci privé di ko liggéey ci la bokk te mënoo koo xam ci moom mënoo xam soxlas boppam bu feebaree doo ko xam bu ñàkkee doo ko xam bu tiitee doo ko xam bu jaaxlee doo ko xam Pastef rek il est nag vraiment postam bii mu yor mérite yéene naa ko ko te jagoo na ko te yàlla na ko ci yàlla defal ndam amiin ay ñoom biram su lay jóob jàpp naa ne mhm. euh, sant joob la ñuy jooy ci moom sant jóob hmm. waaye xam-xam moom waaw jox nañ ko ministère bu mais mais Cheikh sànq maa ngi lay laaj wàllu franc CFA <laughs> sant jóob daal la ñuy jooy ci biram sant jóob <laughs> ak gan mais mais mais laalal ma ci français fa sant Jóob ak gàtt daal la ñuy jooy ci moom waaye xam-xam moom ci biram su lay la tàmbalee waaw bare ci biram su lay la dëpp <laughs> boo gisee Ousmane Sonko moom digg lu bëggul wax waaw non français fa bi dinaa ci ñëw mais li may wax li ma doon wax nii daf ma non daf laa ñor man gis naa ne daf laa ñor daf ma intéressé trop tey da ñëw pour wax ma loolu man comprendre naa non non naa mais mais mais français fa bi dafa jur coow Cheikh Bara ñun dañoo war a jóge ci français fa wut suñu monnaie bopp wala dañ cee war a des no france CFA loo dafa nekk loo xam ne lu lu technique la man ba ma bëggoon <laughs> ñu gën a ñëwaat tey ci parce que émission bi temps bi mi ngi war a jeex parce que xoolal li ma bàyyi ci kër gi ci ay gan yàlla xam na ne xoolal da ngaa jël bëggoon a ñëw ci euh, <laughs> ci ministres yi rek ministres yi sama gouvernement bi nga xam ne mosul am ci Sénégal maanaam gouvernement boo xam ne ñi ko ëmb ñi ko ëmb ñëpp ay docteur professeur ñoo ko seq amu ci kenn koo xam ne domaine bi nga yor maanaam benn pratiqué woo ko novice nga ci quoi. maanaam pratiqué nga ko. Mhm. wala nga bind ci dénk te diplôme boobu nga yor mu leer nañ ñu dénkaat la ko. waaw on peut citer ba pare Olivier Boucar ba pare ba pare ñi nekk ci kaw ba pare ñi nekk ci kaw ñi nekk ci kaw. ñooy résultat bi muy Ousmane Sonko ak Diomaye. est-ce que xam nga ne Ablaye Wade 2000 bi muy jël réew mi da doon defar Sénégal. Mhm. mais mais da ngay jàpp ne Diomaye mu amut Sonko la woon. jomaay mu amul woon sonko waaw jomaay mu àndut ak sonko la woon hmm, dafa wéetoon ci war yi moo bari woon hmm, d'accord boo gisee Karim Wade mi benn paa nee ma Karim du ñëw ma ne ko lu tax ma ne ma Sénégalais yi war war war ba ñemeetut réew mi hmm? te mujj na wax dëgg de sama benn paa journaliste loolu lay wax ne Karim bu procès bi day ñëw nit ñëw di ko sarse te fekk kii day mel ne euh, loolu Karim <laughs> dootu ñëw ndax daa ñemeetul réew mi mais Abdoulaye Wade war yee bari moo tax ma mujj soppi ko di dox ni waa réew mi doxee mais jàpp naa ne li ma doon wax rek mooy elec euh, suñ suñ gouvernement bii bu njëkk ba dangay mën a ñëw nax Wade wala nga nax Macky am li nga bëgg wala nga mm. ger Macky am li nga bëgg léegi nag da ngay nax Sonko nax Jomaay doog a am li nga bëgg mm-hmm. saa boo mënta nax Sonko boole Sonko ak Jomaay nax maam mënoo mënoo nax mënoo mënoo am li nga bëgg saa boo mënta boole Sonko Jomaay wor ah mënoo am li nga bëgg mm. donc kon gouvernement bi gouvernement la boo xam ne euh, ñu bari nag ñuy wax sax naan tamit est-ce que Sonko dina mën a toog dix ans du jóg fi mu toog xam nga yooyu yëpp nit ñi dañ koy dañ koy ah, dégg ah. wa Sénégal <laughs> abdu Diouf ñaata at la nekk premier ministre Senghor mhm. fukki at yoo xam ne sensé wuñ ko dix ans Senghor Abdou Diouf nekk na ko premier ministre Senghor mhm. effectivement soixante deux bi mu jàllee Senghor dafa sensé constitution bi après gouvernement bi mu tegoon amul ministre premier ministre bi mu demee ba effectivement 88 yi ñëw mu tiit gis na moom du mënta ñàkk ku koy ku koy gën a jegeel mbooloo mi ci la créé waat poste premier ministre jox ko Abdou Diouf 10 ans ba 80 ba ba 1980 bi muy dem Abdou Diouf a nekk premier ministre am Abdou Diouf nekk na fi vingt ans xam nga ñaata premier ministre la am. ñaar ñaar. Mhm. Mamadou Lamine Loum ak Habib Thiam. Mhm. jeex na ministre. roof rocc roof rocc roof rocc moom Wade ak Macky ko fi indi. te dañ doon wër ku compétent rek. parce que xam nga ne yow ku ñëw war a former gouvernement ni sa premier ministre ah Moustapha Niass la. tëb nga waaye des nga des na. da ngaa tëb des ci dal ci xal waaye tëbaat ndax niveau bi des na bu dee maam maajoor booy maam maajoor booy ñi nit ñi dafa am ñu wax ne li may wax nag waxi nit ñi. bi muy def magistrat ki jiite woon. Euh, Euh, ki jiite woon faculté de droit mooy Kader Boy mi mu bokkal ndey ak baay mhm. di magam donc diplôme am boobu dafa bëri ñu koy xebet kon mën ngaa jàpp ne xaw ma mhm. nga jóge ci sa Seck bac la am nga jóge ci Macky la ingénieur la mais amul culture générale comme rebo loo ko waxut xamu ko dégg nga nga tëbati nag xoolal li gën a dee dem dal ci si sil neena Njaay Souleymane Ndeye waaw nga xam ne niveau bi moom wax dëgg yàlla macha allah xam nga ne man moom wax dëgg yàlla ah maanaam léegi xool juróom-ñaari ministre premier ministre Wade yi xool bu dee Macky Sall da ngay wax ne euh, euh, euh, Abdou mbay mhm. li ma la si wax sànq mhm. taxu ko woon a jóg sax mhm. bi mu paree ci Abdou mbay mu def Mimi Touré. Mimi Mimi ak Macky Sall li leen tax di xuloo dama la koy wax tey. ma jël date de naissance su Mimi. ara euh, maanaam chiffre boo def nga def pilis chiffre boo def nga def pilis bul def sero nag. ñëwal 22 la lay jox. nga jël date de naissance su Macky Sall chiffre boo def def zéro def def pilis maanaam da ngay def quinze noonu nu mu judd sax la la 12 da ngay def un pilis 2. pilis. damaa teewloo tudd date de naissance am bi le onze douzième mois dangay def un def plus un def plus un plus deux mille neuf cent bi nga def un plus neuf plus six plus comme noonu. boo paree nga jël date de naissance u Mimi Touré. ñoom ñaar ñëpp chiffre vingt deux lañ. dañoo tolloo même chiffre moo tax mënuñoo ànd dañuy xuloo rek ànd. waaye Mimi sa Mimi Touré bu contrôle Macky Sall ci baatin daaneel ko du yomb. Hmm. waaw dafa génn ci moom rek si rom dem. nga wax ay baatin la nag saa yira ànd di li ci biir rek li ci biti ñoo ànd tey jii Ousmane Sonko ak joomaay xam nga lu tax maanaam seen mbir naqaree lijjanti lan moo tax boo bindee Ousmane Sonko Ousmane Sonko bind ko bind ba si yiiru Diomaye fay en français wala te Ar arabe arabe Bassirou Diomaye Faye nga adat ko Diomaye mi ngi lay jox trois mille quatre vingt 3099 siif la lay jox d'accord boo boo xadadee wa ma tasaauna ila an yasaa allahu rabbil alamin 3099 la lay jox mm-hmm. waaw ñu ànd maanaam dajeeg laaya jooju ñooñu ñooñu ñooñu fu ñu yëgul da leen neex loolu mooy baatin bi Mimi Touré kon moo tax Mimi Touré moom moo ngi problème mu déggoo lañ am parce que dafa autoritaire comme Macky Sall bëggul koy kii daal ku koy ne te booy xool Macky Sall mboolem boroom xam-xam yi mu doon àndal ba ci euh, El Hadj Ibrahima Sall El Hadj Ibrahima Sall mel ni juriste. Mhm. dafa baax ñëpp ñu am xam-xam de ànd ak Macky Sall dañoo mujj bàyyi ko. ñoom Eva Marie Coll Seck. Eva dafa mujj bàyyi. waaw <laughs> moom kay seetal képp kuñ ne la diplôme ba normal na. doon na ànd ak Macky daa xëy démissionné. dem si yàlla si Aline Badara. Aline Badara ak euh, ñépp Amarito Ñaanu Thierno Alsane Sàllo mhm. euh, Abdou Latif Coulibaly Ali Nguy Ndiaye Mam Boy Diawo kulluhum léegi nga xool bi mu ñëwee na tak jàpp bun yoon mhm. moom loo ko mën a waxal xam-xam moom am na ko amu ci ndend la yor bu mag bu kawe dégg ànd naa ak moom lu yàgg bi mu demee ba supprimer premier ministre bëgg a demal boppam effectivement mars la daloon Abdou Diouf dalaat ko Abdou Diouf dafa supprimer premier ministre 88 ñëw yar ko mu wutiwaat premier ministre Macky Sall dafa supprimer premier ministre effectivement 2021 yar ko mu wutiwaat ko bi mu ñëwaatee bu dul woon ak feebar bu ñu joonee nekkaat premier ministre mhm. mu dem jël Amadou Ba jàpp naa ne am këyit dem mën nañ laa wax ne Amadou Ba am na xam-xam mais niveau bi moom bopp bi moom nit du la na ca dégg kon da ngay gis ne ñoom naa ñu toog fi amuñu sensu li ma bëgg a wax foofu rey mhm. mooy Diomaye Faye dafa am sensu nekk président de la république am sensu Ousmane Sonko nekk premier ministre loolu ngan di maami réussite la mooy Diomaye day identifier boppam ci Sonko déedéet Macky Sall ma dama ne la euh, Ablaye Wade Moustapha Niass la dajal mu nekk premier ministre am waaw demut Macky la dajal mu nekk premier ministre am xam nga ne niveau Macky Sall ak niveau Sonko bokkunu après Macky Sall Idriss Seck après Idriss Seck ay ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye. d'accord comprendre nga problème mu am na premier ministre rek bu déggook li idées yi Wade yi xalaat. d'accord amul premier ministre bu ko mën a looloo nekkoon ay defoom jomaay nag idées yi muy xalaat gëm ko dafa am premier ministre bu ko ko mën a appliquer. dëgg na looloo tax maanaam réussite cent pour cent dafay am. dégg naa dégg da ngay xool tey ku mel ne tagaa euh, nu mu tuddati mun tagaa waaw bu Kolda nga xam ne moom mooy remplacer Mame Mbaye Niang mhm. man nag bëggoon naa woo gaañi ci ñu topp weexi-weexi gaa yi mooy la waaw parce que gaa yi dañoo yoroon ministère yi def lu leen neex di sàcc mais moom wax na ne du nekk fayanto mais daal ah, xoolaat mbir man de man de te dégg naa sax opération lii ma lay wax lii ma lay wax lii ma wax nii dégg nga euh, kenn du ko dindi muy Mame Mbaye Niang ministre de tourisme ak ma jéeñ ma jéen euh, ma euh, njaay laay wax dégg nga Diène Ndiaye ak Mandiaye Diop ma Diène Ndiaye mooy chef de cabinet am Mandiaye Diop mooy daasam. Diène Ndiaye mi nekkoon ci peche bi. waaw waaw te mujj ministre Diène eh, jaay men tam dëkk Kër Massar. xam naa ko ñoom ñaar ñëpp Kër Massar lañ jaxaay ak Mame Mbaye Niang maa ngeeg seeni document yaa seeni document dama ne la li ma lay wax nii lu wér la ay détournement xaalis foofu ci seen ministère boobu gars yi dañ ne léegi kuy boole na nga am preuve de Cheikh Bara bu ñëwee ma wax la ma jox la numéro ay compte banque xam nga man moom maay Bara ah, banque yi laa wax NCA ak euh, NCA banque xam nga ban faa ma fa nekk sax kan la ku ñuy wax ku sant euh, doomi Adama la tudd defe naa kii waaye doomi doomi Kaolack la dëkk hmm, en tout cas daal. Euh, waay waay Kaolack la dëkk. pas politicien boobu. dafa gaañu fan yi sax déedéet ak kii ak ak ak ak Ablaye ñaan mii BND banque bi mu yor. Hmm. foofu la affaire yi nekk. Hmm? xam nga liñ doon jël nu mu tudd. crédit hôtelier euh, maanaam dafa am lu ñuy wax hmm. waaw ak ak ak ak ak ak ak euh, euh, maanaam bi Covid 19 amee. waaw. dégg nga dafa am lu ñuy wax crédit hôtelier crédit hôtelier activité touristique waaw crédit hôtelier activité touristique mhm. loolu fonds la boo xam ne état du Sénégal daf ko génnee pour doon dimbali hôtel yi dégg nga fiat tamit beneen fonds la boo xamante ne xaalis bi euh, trésor moo koy jël versé ko ci compte banque comme compte banque nit nii lenn li day nekk euh, FONSIP bii Thérèse Diouf nekkoon. Hmm. FONSIP. waaw dégg nga. Euh, FONSIP la kii bi nekk man turu femme bi laa fàtte waaye ah ba papay femme bi dinaa ko dina ñëw. non garaawul loolu c'est pas c'est pas méchant. FONSIP am na lu fa nekkoon am na nekkoon NCA banque dégg am na lu nekkoon euh, BND. foo jëlee pour daf koy jërul ma wax fu ma ko jële waaye man buñ ma woowoon ma jox leen ma jox leen compte numéro compte yi transabilité xaalis yi moom kay Basiru nee na lu leen neex lañ ca def xaalis boobu ñoom Mame Mbaye Niang mooy pee topp ci ma njaay jóob ci ñoom ñett la maa ko hmm? wax man maa ko wax avec des preuves lu leen neex lañ fa def maa ngi demandé nag Mountaga Sy bu ñëwee fond bi ñu wax fiyaat na ko xool ak crédit hôtelier bi. mu leeral waaw. mooy fonds bi ñu génnee loon Mame Mbaye Niang ci banque bi. Hmm. ba pare tamit am na beneen këyit boo xam ne secrétaire général de palais moo ko bindoon mayoon ministre de tourisme mu jënd juróom-ñaari oto ay oto ba jënd këyit gi këyit gi maa ngeeg moom ana oto ya wala ana njëgu oto yi. Hmm? ak yeneen ak yeneen ak yeneen mambay lu ko neex la doon def ci ci ci ci ci xaalisu senegal amul naan fayantoo amul naan lii laa lii nañ ko topp te maa ngi ki nga xam ne moo koy relevé muy munta muntagaa jaaw bu ñëwee na ko na ko seet dina ko gis na ko audité daal te bu bu ñëwee ma jox ko preuve kayit ah, kon bu leer suñ ma booyee ñoom ci yoon ñu dem ma yóbbu leen kayit opération boobu ñu lu leen neex lañ def xaalisu réew mi te noonu nga ko mën a toppee gis nga bi ñu demee bay Macky Sall yi dem un euh, une semaine avant élection yi dafa signé ak saoudien yi benn benn benn benn contrat wu quatre cent quatre vingt neuf milliards. Mm-hmm. mooy xam nga sa Arabie Saoudite amuñu dañ amuñu ndox mu doy ñoom ay xeer la mais dañuy jël géej gi filtré ko de di ko di ko di ko di ko di ko jaayaat di ko di ko joxaat nit ñi ñu di ko naan ndoxu géej. Mm-hmm. loolu lañ système boobu lañ bëgg andi fii jël ndoxu géej gi di ko def. Mm-hmm. mais foofu problème bi mooy. Euh, soo ko defee SDE quatre quatre quatre quatre mille mètres cube yi muy yi muy liggéey mhm. obligatoire la da koy jënd léegi ndoxu Sénégal yow ñu ngi naan dafa seer soo su saoudiens yi ñëwee nga si ak ñoom contrat ñuy filtré di la ko jaayaat nga koy bëgg a jaayaat nit ñi ndox day gën a seer ok dégg te ñoom Sonko dañoo am seen programme bu ñu am ci euh, affaire ndox ba pare mhm. nañ leen bàyyi ñu doxal loolu te annulé contrat boobu parce que yooyu yëpp ay tappale la yoo xamante ne loolu tamit Cheikh Tidiane Dieye defe naa moo moo ko yor moom tamit di di ku am xam-xam mhm. voilà bëggoon na maa def témoignage ci vingt cinq ministres yi yëpp mais temps bi benn par benn mayu non non temps dugg ci benn affaire xóotal dégg nga mais daal lii ma maa la ko wax fii tey prévu moom gaa yëpp koo ci dem ci ministère am alali baayam la ko jàppe woon di tànk yóbbu tibbi yóbbu voilà yaakaaroon ne Amadou Ba day gagné alal ji rees léegi nag affaire bi jaax na do këyit yaa ngi fii nag ma njaay jóob ba ngi may dégg ma mbay ñang moo fi gën a gaaw a pelent na ma pelent ah. man kay preuve laa yor lu ko neex la def mais yow bi bi bi te maa ngee kayit yi numéro compte banque bi mi ngi sama téléphone bii bu neexee ma wan la ko déedéet tey bu ma waaw mi ngoog kon tey bu ma kon yow bàyyil bañ woo la crédit hôtelier activité touristique boobu noonu dégg nga ak euh, ak nu mu tuddati euh, euh, fond dama ko fàtte kërootuma ko. jeex na kon leer na noonu la demee le président Diomaye bu wér yenn ci ay yoo xam ne ni. jàpp na ne ña fa nekkoon dañ doon luubalu koppar. demul ministère yenn kay. waaw Mame Mbaye donc wax nga fi tamit ay ñoom jéen nag ñeneen ñi quoi donc moo tax may wax loolu en quelque sorte. ñoom kay yéen kay moo nekkoon daas bi. waaw kay moo nekkoon euh, directeur cabinet bi. jéen a ngi fii di la dégg. kon kay leer na. xam naa leen ña nga dëkk Kër ma di politique kenn ki. kenn ki Assane Diattara la àndal sawetu koñ la xam naa leen. waaw sawetu koñ la ñoom ñëpp bu daanaka am na. lu leen neex la ñuy def ba pare jàpp nañ ñun waaye baax na ñoom ñëpp dañ leen topp. man loolu laay demandé. Mhm. nañ leeral alalu askan yi fu dugg nu génne ko ñi ko doon lekk ñu teg leen daan yoo xam ne nit dootu xalaat jël mu Sénégal loolu mooy lii dëgg. mooy lii dëgg mënoo fekk réew mu ndool buñ xiifee duñ lekk buñ maree duñ naan amuñu hôpital yuñ fajoo lépp nga jàpp di détourner nu mu la neexee dégg ma. <coughs> kon loolu mooy day. delluwaat ci nañ nañ nañ. ba gis nga Lat Diop taxaw fii ne oh, ku wateel jomaay dof nga. bu ko tontu ah mais yow gis nga yooyu ñun ay dof lañ ñu jàppe rek. weesu nañ ah weesu. ah ñu ngi doog a woteel jomaay di nee na ku woteel jomaay doo nit dof nga. loolu ci koo xam ne ministre nga woon ministre. ci république des sports. république quoi en matière de élection nit ñi war a def seen choix nga nekk choix bii mooy choix dof yi. ku woteel kii dof nga. ba pare yow bëgg ñu wateel la naan non bu ngeen ko wateelee su taxawee ak Joe Biden moo tax tey bi jomaay di discours sama xel ci Lat Diop la dem Diomaye ku ko natt ci sénégalais jot ko ab sénégalais rek lay nuróol naan moo bu taxawee ak Joe Biden Joe Biden mu laxmee <laughs> hmm? Amadou Ba mii nga xam ne kenn xamul lu muy nuróol moom la bëgg ñu wateel ko bu demee Amadou Ba bu demee ci Joe Biden ñaar ñu lax la di mel ne mburu ñu fanaan <laughs> ah, loolu sax amatul solo mais metti na ma parce que tamit loolu am murit du wax loolu quoi amatul solo xam nga murit du gis doomu aadama di ko ñuy wax ci en matière de intellectuelle baaxul nga bàyyi ko fa di wax ci ay jëmmi nit daan xool leen koo xanaa ay dof ngeen nag lu ma xamul te yow yow nit nga koo xam ne yow nee nga ministre nga te yow loo yor gone jigéen yi lekk di la nax nga leen di jëndal ay appartement yi centaine de million ci dëkk bi nit ñi di ko xam ne cel nga jàpp ne yow yaay do yow moo tax Pape Alé Niang nee na koo jàpp ne dof la mi ngi wut garab yu mu la faje waaye baax na waaw. <laughs> Ah. non non ay kon. loolu yëfi campagne la rek mais bon man tey bëggoon naa. déedéet campagne dafa am fu muy yem. Ah. dafa su estimer Diomaye xas sénégalais yi. ne su ngeen ko wateelee ay dof ngeen. Mhm. ku dugg ci bureau de vote wateel Diomaye dof nga. Mhm. moo ko wax. comprendre fi muy wax maa ngi koy xaar mu tuub ko. Ah, xëy na jombul dina ko tuub bu bu ah, dee murit la de war naa xam ne loolu mu def sëñ Tuubaa jàngalewu ko de te moom murit lay woote woo taalibi sëriñ Saaliwu sëy ko doon atte ci jëmm ba gis sëñ Saaliwu da nga ko atte ci da ko atte ci aka ni nga koy atte ni sëñ Saaliwu mel Cheikh Bara bàyyi ma laaj la kaddu gu mujj gi lan la waaw kaddu gu mujj gi maa ngi am benn question bu may laaj imaam yi imaam yi laa koy laaj imaam yi Sénégal yi man xam man moo tax ma jox la ko waaw président bu yor loolu dafa mel ni metti na la nag. déedéet metti na ma. li tax mu lay metti li tax mu metti ma mooy ñaar du sax ñi ko doon laaj. Hmm. lan la kon. mooy ñun suñ nguur yi dañuy tàmmal nit ñi lu munta wéy. Hmm. loolu benn la. Hmm. bu ñu leen ko tàmmalee ba noppi biñ koy def duñ ko yëgal askan wi. yow yaa ngi doo ko yëg ne. imaam yi Sénégal yi dañ leen doon jox fukki junni loolu ñaata la. boo ko wàññi woon ñaata la. bari na bu doon cinq cent mille francs ci état bu am transparence yow waroon ngaa yëg ne sa imam bii état warloon na ko nang. Ah, loolu moom peut-être wax nañu ko sax waaye. ah déet. dafa bëri xaalis bee bëri. dañuy tàmmal suñ nguur yi jàll dañ doon tàmmal nit ñi lu mënta nekk lu mënta wéy ba noppi buñ koy def duñ ci tàggu askan wi ñu koy defal. Mhm. parce que jàpp naa ne du président mooy jox imam bi mais askan wee ko jox. loolu benn la deuxièmement nag mooy man jàppoon naa ne imam du dénoncé ci Sénégal mm-hmm. imam buy dénoncé moom jàppoon naa ne amut ci réew mi ndekete bu ñu leen xañee seen fukki junni ñu dénoncé ko ñun ñi ñu doon xañ suñu dund di ñu xañ suñu su suñu aafiya di fekk nit ñi seen biir kër yi di jàpp di doom jàpp doomu Sénégal di rey nekk fii barricade Ousmane Sonko pendant cinquante cinq jours benn imam waxu ci wax leneen ndekete yoo ñoom boo laalee seen fukki junni ñu jóg metti na ma parce que xam nga lan moo tax. lan moo gis nga lii ñuy wax këyitu préfet yi préfet bu njëkk ba bu ko mësaan génnee dañ ñëpp ci jox crédibilité le préfet bi wax na. Mm-hmm. mujj na préfet bu waxee moo këyitu journal yam dañuy xam ne du dëgg dañ naan day politique waxut dëgg. Mm-hmm. gis nga imam yi. bu ñu leen démystifier ba weddi leen man damay waye di keneen waye di te xam nga kan mooy perte. kan mooy l'islam. dug ndamam waaw l'islam ay perte parce que ñun ñëpp kenn ci ñun taxawoo foofa parce que yow a doomi diw wala yow a jëmmi diw da faa taxaw en tant que yonent sallallahu alayhi moo tax nga taxaw ci minbar soo taxawee am ci yenn yoo xam ne da nga ciy dugg di ci dugg di ci dugg ba nit ñi démystifier la. dégg nga day dem ba day jur askan wi ci seen bopp ab imaam ak daanaka benn waay nii rek la ñuy yemale. Mm-hmm. su loolu amee nag kan mooy waarati nit ñi kan mooy tëbbati nit ñi ci xol ci yàlla. Mm-hmm. kan la nit ñi gisati seen xol di tooy ci yàlla. Mm-hmm. kan muy xuloog sa jabar seeti imaam. bu fekkee imaam day day day taayee intérêt ngay taayee say intérêt mu leer la nag. mu leer na la ne discours discours imaam dafa am discours boo nekkee opposant bi la lay jox boo nekkee pouvoir bi la lay jox. boobu bu fekkee noonu la demee léegi yow man ba ma ko xamee imaam yi fii senegal nit ñi dakaar ku am doom imaam ku dee imaam ma koy jullee ku xuloog sa jabar imaam ñaar ñu yor bar imaam lépp imaam lañ koy deme na imaam yi nag doy loolu te ragal yàlla. Mm-hmm. li sëñ Moussa Ka naan yow waarekat bi la yow waarul waarekat yi nag ñoo war a waaru. ñoo war a waaru ci lii yàlla def Basirou Diomaye fay koorug daaw koorug daaw mi ngi fekk ñi jàpp ko def ko ci kaso koorug ren koorug ren bi ñuy julli lépp luy doole ak luy kaso yàlla teg ko ci loxoom mhm. ci benn at bi ñuy um koor ñu ngi koy sàmm di ko aaye muy woote téléphone di ko aaye mu gisi mbokkam di ko wax nii ngay taxawee fii ngay toog maanaam nga xam ne amul sax liberté yi moom génn ci buntu kër bi taxaw ci benn espace mois ñiy wori lépp luy doole ci senegal jaww jeek suuf si lépp yaa ko yor mhm. ci lépp ci benn weer kon nañ xam ne yàlla mooy borom kàttan mooy borom kàttan yàlla mooy borom daraja yàlla mooy borom doole mhm. dégg nga Basiiru Joomaay fi yàlla jaarak moom bu fa jógee di jaay doole xamul yàlla mhm. waaye fi yàlla jaar ak Basiiru Joomaay ñu fekke ko suñ ci jàngut yàlla yàlla dootuñu jàngal dara bañ jàng ko nan ci waaru te delluwaat ci yàlla te sàmmaat suñ digganteek sénégalais yi xam ne lii ñuy wax président de la république bu dul cërub cërub yàlla cërub àdduna bu ko gën a kawe amut mm-hmm. te li koy maye lenn dong la mooy doonub sénégalais d'accord jombut kenn dëkkal Njaga dëkkal Fatick nekkal doomi jaaykatu beñe nekkal doomi jàngalekat nekkal lu la neex boo doonee sénégalais mën naa am bis ñëw nga nekk ci pale bi nga nekk ci palais comme que nag doomi senegal rek mooy jiite senegal dangay xool doomi sénégalais yëpp ci bët boo xam ne dangay jàpp ne ñëpp ay njiitu réew lañ waaye dafa am jëf ju sew yoo xam ne boo ko defee te yor darajay imam wallahi laasim li nga yàq ci diine ci dafa rëy su ma neexoon ne miig parce que man matale yemale gi ma leen di woon yi suñ ko hmm. defoon suñ ko defee man na maa wax ne man bu ma neexoon ne ren kon continuer leen li ngeen doon def ndax kon jomaayee ci bénéficié wu moom ngeen di tagg moom ngeen di xalamal pendant cinq ans amul problème waaye imaam du loolu hmm. nañ nañ ragal yàlla te delluwaat ci yàlla te sàmm diine ci nangu ñu ñuy mere ndax yàlla nangu ñuy perte ndax yàlla hmm. loolu il faut ñu koy nangu di encaisser tey wax dëgg te yàlla tax. te yàlla mais mais internaute bi dafa dooma dimbale rek ci benn une minute internaute bi nee na ndax loo xalaat ci euh, ku mel ni Karim Xurum Xaq ak euh, sortem bi mu def taxaw ne dañuy def rassemblement euh, ndax teelul ci gàttal une minute rek très rapidement ndax jeex na. waaw non wax dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla neexuma tey ñuy baalonte ak ma toog fi naan ay Karim nangam nangam yooyu amul solo. yaa ngi dégg sa question du lu am solo loolu. Karim nit ku tàng la daal. sama dama ko baal nag xëy na wala euh, xëy na nit ñi ñoo bokkul lu ñu doxale moom buy ñëw ci tele du def ay kii mais bi muy ñëw foofu mhm. da doon wax ka pour ñu bàyyi Ousmane Sarr mhm. Ousmane Sarr waaw miñ téye te man mii ci lool wax waxuma ko ci kaw mais du ma xëy suba ba ngoon te yëkkatiwu ma samay téléphone di woo avocat Sonko yi maître Bamba Cissé di ko rappeler ñu des ci kaso bi te war a génn mhm. dégg nga mais nag xëy na moom ñëw na di ca wax Mm-hmm. dem ba jàll ca Baraasale ya jàll ca tesetu gaay yi jàll ci Sonko du du du du yàlla yeneen koy kii du loolu moom xëy na wareesu ko euh, loolu moo ci kii mooy bu fekkee leader nga li ma gili lii nag li ma ci gënal mooy man dem ba këram ma toog waxtaan ak moom parce que nit bu fekkente ne da nga ne da ngeen xaritoo wala nga yilif ko ba sañ koo jubbanti soo ko waxee ci pénc mi maanaam da koo bëgg weer mm-hmm. da ngeen war a xaar ba ba ngeen wéet te Karim nit ku baax la am na lu mu liggéeyal senegal lu bari mën naa wax ne jafe-jafeem yëpp bëgg Sénégal la xëy na nag température nit ñi ñoo bokkul ba pare wax yombul dégg nga voilà moom tamit moo war a xam ne nag plus que ngay gën a kawe mm-hmm. sab jël day gën a diis mm-hmm. dafay toll nit ki foo xam ne président de la république sax buy bëgg a wax dañuy xose xose aw këyit te nee nañ mu ëpp xam-xam ci réew mi bañ dénk ko réew mi mhm. pourtant dañ naan xose xose aw këyit ne ko tàmbaleel fii yem fii mu wax ko ta dem léegi nag bu fekkee Karim dafa tàmbali woon di rab dem ba néeru nitu dëgg dem ba bu waxee réew mépp yëg ne Karim wax na mhm. donc war naa xam ne samay kat léegi lii mooy bopp bi lii mooy geen bi lii moo ma mhm. yëkkati woon wax naa ko maa ngi dem bu ma ñëwaatee ci lii uniquement bu fekkee dafa bëgg a ñëw wax booy ñu tekki bracelet dafa waroon a woote conférence de presse boo xam ne pour looloo ko tax a jóg mhm. mais wax ci lii jóge fa dal ci lii jóge fa bañ fàtte la nga doon wax fi ne fàtte nañ ne Karim Ousmane Sarr la doon waxal mhm. mujj nañu topp ko naan ko barasale yeeg taalibe Sonko yeeg maam yàq wax ja mhm. loolu rek laa koy conseillé te am na ci lu bari nag lu ma ko war a wax mais dinaa ko seeti insha allahu ah, waxtaan ak moom loolu am na solo Karim kilifa la goo xam ne kenn du ko jubbandi ci penc loolu am na solo sax waaw ah. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye bégte laa moon tey ah. ak yow en tout cas di la baalu àq di lay baalu àq itam hmm. jërëjëf jërëjëf donc mu ngi noonu tey jii bu fi di géej nag Cheikh Bara waaw du ma fi géej gars yi mais a nag gars yi ñoo xam nañ joto bariwul bëriwul mais da ngaa war di wax mhm. ah donc jërëjëf ah <laughs> ñu lay jaajëfal bu baax a baax di jël gërëm bu baax a baax ñi farawoon ci wàllu xarale gi ah ñoom madame Ndiaye ñoom monsieur Ndiaye ñoom ñëpp ah ñoom ñi jàpp ci émission ba tax lépp yemba ah, ñoom Ismaïla mention Issa Thiaw ah, ñoom ñëpp ah, ak ñi nga àndal ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ñoom sama xarit eh, waaye damay xuloog moom souvent nag ah Baye Mbaye Baye Mbaye ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax internautes yi gis naa seen commentaire yëpp maa ngi koy maa ngi koy liir ñëpp ah, gërëm naa leen sant naa leen damay bañ a lim kenn ñi ci des mer mais yéen ñëpp ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci biti réew yëpp gis naa seen taxawaay yéen ñëpp jaarale ko ci André jox naa ko nuyul ma ñëpp ah André merci beaucoup en tout cas de votre fidélité renouvelée à Sénégal 7 doon am bu baax a baax ànd ak yéen ah ci ci ci ci émission bi donc euh, rendez-vous bi kañ lay nekk Cheikh Bara rek pour Sénégal 7. waaw beneen ah. <laughs> jox jour walla date. du yàgg ah. du yàgg mm-hmm. dara donc mu ngi noonu Cheikh Bara Ndiaye la ñu ànd ak moom mu bokk ci kër gi ah ñu defandoo ko ah. ñëpp ñi ñu doon suivre ak cant ak na leen di leen baal àq leen baalu àq bu fekkee wax nañu loo xamante ne nii na ngeen xam ne rek ay jaamu yàlla yu di waxtaan jëfandikoo seen xel ak seen xam-xam ak liñ jàng ngir waxtaan ak yéen bu fekkee tamit am na lu jub ñu xam ne yàlla suñu borom la donc puisque ñu ngi ci njeexitalu koor gi baal nañu ñëpp ah. di ñaan yàlla yàlla nangul ñu ñaani nangu suñu jaamu yàlla jégal ñu suñu bàkkaar yi xiir ñu bañ ko defati dañuy joxante rendez rek allah ëllëg bu neexee borom bi ñu àndandoo ak yéen ci yeneen i jotaay mais d'ici là restez branchés scotchés jamais déconnectés sur senegal7.com jaa ngeen jëf merci et au revoir jërëjëf. jërëjëf Cheikh bi. ok bi doo wax doo wax.